asalaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi ma nuyuwaat leen si seen tur ak si seen santa comme nu ma leen ko dee defalee saa yu nekk rek every Wednesday saturday di leen indi Tambambalu show comme ni ma leen ko dee waxee rek seen xarit la Gaye Njoro ñambeeg maam xaasima ak seen doomi ndeyam ak baayam siti maamam di yaayu baayam te nag ma ñëwalaat leen fii rek si seen Tambambalu show Gambian Talent Promotion live and direct indi Gambia di leen ko indil every time rek fii ngeen ko amee wax naa leen ne ñun ñoo leen a indil yu baax yi nii tey nag ki ma leen indil xam ngeen ko yéen ñëpp kenn du ko présenté waat ci Gambia bi fii nii muy Killa Ace Bondey yi ala baay Soulja bari affaire xam nga rek ñu mel tey moom laa leen indi rek bu rek. ñu jàkkaarloo ak moom rek comme nuñ ko dee defee saay nekk rek waxtaan ak moom waxtaan ak moom yu baree bari dinañ dugga si live am dinañ dugga si musique bi everything fii lañoo leerale leeralee yëpp tey Killa Ace laa leen indil ma jox leen ko rek mu nuyu wante génn Killa Ace nuyu naa la yeah ah, maa ngi nuyu everybody from east west north south jinne yi malayka yi doom yi doomi aadama yi it's your boy Killa Ace Ali Baba ala baay soldier killer on the mic You know what waaw gannaaw bi nga nuyu rek am comme ni ma ko dee defee saa yu nekk rek ak sa yeneen morom bi dee jaar rek ma laaj la Kanaye Ali Baba Kanaye Soldier soo doon soo ma doon wax yow yaay kan naka nga ma describe fan la sa maam jógee yaay kan. Mm-hmm. yow nag yaay bëgg a si ay affaire nag ay maamati maam. waaw um, question boobu noonu yaatu na depending on nu ma ko déggee. Um, depending on nu ma déggee question bi dinaa ko mën mm-hmm. a yaatal waaye comme dafa mel ni yaa ngi laaj ci suma cosaan based on nu ma ko understandee mm-hmm. man originally um, alaaji Ibu Caam mooy suma papa ajaratu Aysa mooy suma yaay mm-hmm. um, ñoom nag uh, waa Kéjar ga leen jógee Joka du district képp ku nekk Joka you know gars yi nekk Kéjar da leen bëggee you know originally foofu leen jógee man nag ma juddoo Serekunda naa you know ma am five years dem america yaroo fa fa 10 years ñëwaat gambia way dal pour suma cosaan ak fuma joggé dal originally um ñun waa kijar ga la comme ni ko waxé nga né nga juddoo yow fi nga wa juddoo waaw serekunda lopitaan bi way say maam yow ci la bokk sax waaye waa aca ok waaw góor rek comme ni nga ko doon waxee rek waaw man suma yaay nag originally waa Sokone la. Mm-hmm. you know ah, moo tax si tamit bi bu ma doon dimbale gars yi si humanitarian mm-hmm. ah, bu ma demee Sokone dem naa ba xam originally moom waa fan la so you know ah, ba pare tamit mu yaroo Karang waaye man nag naa fii laa juddoo you know c'est. Serekunda nga juddoo màggee Serekunda. waaw Amérique laa màggee bu ma amee five years ma papa si la ma yóbbu. ñu bi yëpp ma nekk fa ba 2010 so am naa fa about 11 years in America si la ñëwaat Gambia ni nga ko waxee nga juddu nekk fi ndaw ñu jël la addi yoo nga age yóbbu la America soo ma doon wax sa life in America naka nga ma na yooyu naka nga see duggee waaw dëgg la suma life America bu ma demee es you know um, comme ñëpp xam ne America moom daa neex neex la def you know um, jógee woon Gambia amoon sa ay waga waga dem America nii laal si ngelaw bi you know so um, luckily I was privileged. pour mm-hmm. yàlla dimbale the ma demoon school You cool you know um, suma papa ak suma yaay nekkoon foofu noonu immigrants the gorgolo, the doors mm-hmm. and war. you know what I'm saying uh, ma nekk fa man ak suma brothers yi ak suma rakab yi you know ñu ma bokkal ndey ak baay America you know mm-hmm. um, so di magee foofu ñu nekk and eventually then move into the Bronx uh, ma fa nekkee foofu laa commencé So so bu ma demee the Bronx around bu 11 years you know Um, te ñu ngi woon si benn koñ bu tuddee Eden Wall Projects mooy benn neighborhood and foofu laa commencé di rabantu di dugal si affaires yi bu baax a baax suma tur ki la is sax foofu la ñëwee waaye life yi America alhamdulilah as a child was good even though amoon na ay disadvantages te disadvantage bi moo nekkoon ne like man bu ma demee America dama fa yóbbu pour comme lu tax Gambien bi dem mooy pour mu dem dóor waar ñëwaat nekk ku successful. dëgg waaye yow time bu nga dem America ni nga ko waxee yaa ngi nekk young boy. waaw waaye like comme soo fa nekkee young boy nga grow foofu noonu you are still from Gambia regardless. waaw understand nga xam nga léegi mag na. waaw waaw so. su suñ gëstu bu gàtt yow sa nekk America da nga lëj. da nga dëgëroon boppa. non xam nga man su ma dëkkoon sax foog nga dëgër boppa. Mm. mooy comme like the projects. Ah, ñu xamul lan mooy projects America like am na ñeneen koñ yoo xamante ne foofu mooy hut bi. te hut bi soo fa yaroo naturally da ngaa digal boppam parce que life bu fa nekk moo euh, ñu ne nit ki you a product of your environment understand nga so dëggal boppa bi la woon daw school waaye tamit foofu laa duggee woon si li nga xamante ne mooy mooy rap bi tout sama dina ñëw si loolu maa ngi wax sa educational background fan nga dooree waaw man maa ngi defoon suma PS mooy primary school maa ko defee PS 112 New York mm-hmm. and then ma ñëw MS boobu Bronx la and then bi ma ñëwee fii dama ñëw Kutu Junior Secondary Street am naka nga feel nga nekk euh, Amérique foofu noonu nekk black jógee bi comme ni nga ko waxee am waga waga yeeg yu waaw non dama xam nañ si loolu am waga waga yeeg yooyu xam nga nga dem xam nga foofu comme live in America yaa ma ko gën am xam yow ma fa nekkoon xam nga si school si foofu nga nekk fa black nekk si biir tubaab bi ñu laa bulli fële ne di la lii naka nga doon dundee loolu non locally nag man fu ma nekkoon was like a black neighborhood parce que projects black African a Hispanic. ak and Hispanic is sax dañ under the category of black when it comes to description understand nga so um, luckily man affaire yi buli duma ko daan jël nonsense dañ ma daan ooyee ay african booty scratcher loolu la ñu ko daan tooñee ak yooyu noonu waaye comme ñu fa nekkoon daanaka ay black ak hispanics la so luckily nag man da nekkoon ñoo xamante ne ñun xam nga rek xale leen woon de waaye da nekkoon bañkat te loolu duñ ko daan nangu waaw dama déggoon boppa xam nga so tamit jógee woon Afrique tamit taxutoon nag américaine yëpp ma ah. wala yëpp suma mag o yëpp anybody understand nga loolu te dama nekkoon koo xamante ne I was very charismatic te suma tur bi ee soo fa la jógee so ay affaire yi bullying unfortunately unfortunately man musuma def ci ay affaire bullying ni naa mais eh. musuma bully kenn ya, kan musala bully never ci suma ay sa job su dee bëggee sara musuma ñëw kii complain ya diw ma ma na dafa dangaa bu len ko faale ya ga nañ ko bulli ñu la mo wax sa nuyu ak laaj lañ ko ñun duñ ko wax ya ga nañ laa billahi fi nga ko waxe rek di ñu li ni di ñu jema nakala tudati am après rek comme ñu ko waxe nga nek america fofu di dem school mhm. danga fa jeexal school wala. non time boobu maa nekk ah. I was like I think grade six laa nekkoon. Ah. parce que seen bi ute naa fii understand nga loolu mi so fii si la continent bi sax waaye grade six laa am Amérique. grade six nga am Amérique. sa six tamit lañ la indiwaat. waaw naka nga ñëwee baag Gambia sa famille yëpp nekk fa. Mm. waaw yow yaa décide pour ñëpp si wala dañ la déport wala naka la mu fa demee. lu xewoon mooy mooy lu ma doon explain. mooy comme like ñun ay Gambien ay africain leen. pour mm-hmm. te africain bu dem bitim réew ah, demul fa pour noos ah, demul fa pour noos wala leneen. Ah. dafa dem pour dóor waar góorgóorlu man nag bu ma demee loolu daf ma réer comme many of our Gambian brothers yoo xamante ne foofu la ñu yaroo dañoo dem incorporate nekk si système bi. bokk si système bi foog ne ay américain leen mhm. anastan nga foog ne ñoom sax foofu lañ juddoo waaye man loolu moo nekkoon suma kiis and I was too much suma yaay gis ne like man dama nekk koo xamante ne like xam nga lu taxul maa jóg gars yi wax ma pour ma ñëw Gambia si laa ñëw pour jànga suma aada xam suma culture xam lan moo ma tax a jóg ak ma may kan si dëgg-dëgg parce que demoon naa ba réer so in a nutshell loolu moo tax gars yi indiwaat man I was too young to be dëgër boppa bi mu I was very dëgër boppa comme I boppa waaye yaay bu nekk yaay bu nekk lu gën si bi yëpp ak comme ni ne sa brother parce boppa everybody else ay jàngis leen woon ñu bëri am man boppa looloo tax ñu ma Gambie waaw pour dëgër mu génn si man ma xam man ku ma doon xam ne man Gambien laa 100 percent you know saying ma bañ réer si système boobu noonu waaye waaye soo waxee nga bañ a réer si boobu noonu kon das mit na yow sa sisters yeeg yeneen brothers yu fa nekk ñoom dañ réer si système bi. Um, no they was not lost to the extent boo xamante ne they was doing anything outrageous like I was doing loolu mooy différence bi ñoom they were level headed I wasn't boo that's the na <laughs> leer na wala leerul looy taasu xëy. waaw <laughs> du leen ko faale. <laughs> du leen ko faale waaye filam ñoo fekk. am ba léegi rek comme ñu ngi waxtaan nga ñëpp si jógee ko Europe. si gàllankoor Amérique New York New York New York New York City jógee ko Amérique New York. ñëpp si ñëw Amérique neexe mu neexee Europe nu mu mel laa fi fa nekk bi nga miin. xam nga. Ah, nga stobon ñu yooyu indi la xam nga ñu indi la back to Gambia. Ah, ba nga ñëwee Gambia. système bi nga bàyyi foofu ak ni nga doon dundee foofu ak ni nga meloon how do you feel. naka nga koobee ak situation yi Gambia bi. waaw man nag loolu moo change suma subject matter as a rapper ñu bëri la lay wane ki la is politicien la dafay wuy affaire politics fekk xam nga tamit xamul waaye it's more social bés bu ma jógee ko New York. ok. waaw mbokk yi comme ni ñu ko ne waxee saa yi nekk rek xam ngeen Gambia rek ñu mel ak suñ network beeg yooyu nag waaye di leen wax ne rek ñu ngay jégalu rek tey nag ki ma fi am gis ngeen ko dafa bari affaire waaye gay njooro lam fee fekk parce que maa ko gën a bari affaire bu leen ko faale am ba léegi nag ñu ngi doon wax affaire yi ñëpp si waat back to Gambia xam waaw yee man bu ma ñëpp see dama jooy like first day ma wàcce Gambia nii tegu si kaw tali bi rek dama over joy ra day sa, billaahi uh, su ma magi yaay bi yaa aw mooy suma séeré lu tax ma doon jooy mooy bu ma wàccee lu ma njëkk a gis mooy gisuma sa tali tali bu xonq laa gis te maa la wax in 2000 time boobu Brikama Westfield highway bi Banjul highway bi time yi yooni bi time boobu ay shells moo fa nekkoon concrete la waaye ak shells Brikama ba Westfield was tali bu xonq understand nga soo ma ñëw ba pare si kaw tali bi maa ngi gis activités yi xale bu ndaw tee ndox bu seeda di jaay ak tànki neenam ak yenn yoo xamante ne booy bilaay waaye su ma dafa daw man maa ngi for how much, ne everything is nice. Uh-huh. even if you're poor sir, there's a standard of being poor boo xamante ne sax I am na ñoo xamante ne ñu ngi am xaalis tey sax loolu mooy seen standard. ma jooy ma xalaat ne xale bii nii mu ngi jaay ndox bu seeda si naaj bu tàng bii nii te Amérique bu ma fu ma jógee xale yi ngi ngi ngi study wala ñu ngi recreation wala ñu ngi engage in something loo xamante ne is fruitful fii Africa, xale bi di jaay ham hamga. nga su ma yoon daw foofu laa change sax man nu ma naan. fogoo da nga fogoo ne da ngaa ñëw rek ñu en la si soo ndox yeeg boole ndox yi ne damal jaay ndox. <laughs> waaw xam nga loolu tamit mun naa possible you never know xam nga suma yaay mun na xam nga billaahi loolu yëpp waaye kam waaye loolu sax du loolu rek waaye dama dama ko fiil laaj ne comme lii am na anastan nga lu ma mi te mu ngi dukkee mu ngi dundee façon ngi dunda bu loolu moom ma doy te depuis bés boobu noonu si la change man nu ma nu mu naan bindee si musique parce que time bu ma nekkoon Amérique dama laan bind affaire yi guns sell crack shoot you in your head comme loolu moo fa nekkoon parce que day talk about environment boobu la waaye bu ma ñëwee Gambie rek dama change loolu si la commencé di wéy about situation bi in Gambia. waaw non dinañ ñëw si loolu yëpp. Ah, ok ah, bu ma jiitu yaa nga bëgg a ji dinañ ñëw si loolu yëpp am after bi nga comme ni nga ko waxee yaa ngi doon mm. nettali yoon bi jooy beeg kii karab yeeg yooyu. Eh, nga dugal school nga dem ban ban school. mun a al dawa al islamia mooy kutu si senior secondary school. foofu nga nekkoon. waaw loo doon study arabic. non um, ah. English school la. waaye arab yaa ko sponsor woon ay bilis foog naa waa Saudi moo tax moo am tuddi arabic bi waaye they have like islamic guidelines da ngay jàng islamic stories ak yooyu noonu it's english like english moo nekkoon um, main language bu ñu naan use ok foofu nga jàngee ba jeexal sa grade SOS ma nekk fa grade 10 time boobu tamit maa ngi wàcc suma dëgër boobu yi ma drop out si laa drop out grade 10 the following year si laa dem international business college ma jànga business and tourism am fa suma uh, diploma in business and tourism HNC kon das mi ne graduate lu non non high school drop out la high school drop out nga yëpp si dëgër boobu boobu yeah well it's just a stage in life and to all of my fans and people that are out there watching it's not something that you should be inspired by I regret it today uh, dama la uh, pause yow lii bokkul sa interview I regret it today so we want to kill it, lay drop out na nii ba tey non it's not a good thing and I regret it because right now so many ngi commencé waat di jàngaat again and um, so anybody out there all of my fans because que ñu bëri dañ lay roy suñun loolu nekk na regret in my life and if I had another chance to rewind dama ko doon jeexal waaye at least defoon naa something else i am si suma um, diploma regardless why still don't be inspired by that. How? gannaaw bi ma waxee sa educational background nga wax wax yi nga fi wax yëpp xam nga jaay ma wax jure yag yooyu xam nga am ma dugga si rek kañ nga commencé musique waaw ok ah, ndax bi nga juróom bi nga nekkee Amérique New York waaw comme ni nga ko waxee New York waaw man bu ma nekkee New York si la start rap waaw si nga start rap rap understand nga am nekk artiste du benn. waaw parce que artiste mooy am nga structure bi def na song am nga at least benn vidéo. Mhm. xam nga yaa ngi out there si man loolu mooy artiste. Mhm. time boobu euh, may nekkoon like rapper mooy amoon naa interest ak influence rap in me. Mhm. ba dama naan rabantu mooy back in 97 98. Euh, te loolu la suma ko yàlla yërëm euh, ñoom rey nañ ko Amérique in 2006 kooku laa turee suma last doom bi. moom moo nekkoon suma role model. man ak moom soo ñu gisee benn lañ moom a suut rek waaye da ngay foog ne twins waaye moom he had the charisma all the time ngi sanse xam nga fu mu dem um, we on aha comme ni nga ko doon waxee rek yaa doon wax waaw so si sama mag boobu laa amee inspiration pour um, rap so after my freestyle ba pare in school danaan am like rap battles mm-hmm. like after school wala during break mm-hmm. ma si doon bokk noonu la Killa Ace bi ñëwee parce que ace lañ ma doon ooyee AC in school. waaw man maa si yokk i e bi pour mu nekk ace parce que ace mooy ku ku ku mun lu moo def wala koo xamante ne is number one in in an area kooku is a ace in that area understand nga si laa si def ace léegi after school rap battle si dama daan bokka dama daan jekkoo gars te su ma jekkoo gars yi rek danaan yuuxu ace is a killer ace is a killer so dama boole killer boobu foofu la killer bi ñëwee. killer ace ma jël killer boobu from ace is a killer ma aat ko si ace bi. muy Ali Thiam bu ma yokkoon i muy Killa Ace Killa on the mic Ace and rap mm-hmm. noonu la Ace mi ñëwee so America la start on di rabantu di freestyle antu bu ma ñëwee Gambia c'est la officially nekk an established artist artist bi da nga ko doon su say maam. Mm. wala ndax da nga fekk seen famille bi nekk ak géwél wala. Euh, lana la inspire waaw lana la inspire. musique musique nekkul xaalis boo xamee ne sa baay fa dee. non ah, su naka ngay mën a doonee. dafa am nga xamante ne daf la dee inspire nga nekk musicien wala ñeneen yu bari dañ fi nekk ah, woykat dañ fekk seen famille nekk. Ah. no man ku ma inspire pour ma nekk musicien musuma mag ma taat du doon nekk doon woykat. in the first place um, talent mbiri yàlla la loolu yàlla koy jox nit. yaa xam ndax sa papa moo nekkoon number one géwél su la neexee nga juddu nekk ak businessman understand nga loolu mi waaye suma papa suma family aw ma si kenn koo xamante ne am na géwél lineage inside of it suma papa moom non understand nga su ma yaay tamit di same thing so man yëguma ko waaye musique bu ma def nekk loo xam ne ma ko doona waaye I was inspired by my brother. mooy Matar Sarr ah, ok nga ñëw Gambia jógee ko Gambia nga officiel yi nekk. fan nga commencé. waaw bu ma ñëwee Gambia I was at Kotu te foofu sax dama jekkali di ànd ak suma friends yu ma fa bokkaloon. ñu mm. am suñu freestyles. understand nga si leen ma boolee ak Harlem Niggas time boobu noonu ñuy toppa siini Gambia bi time boobu ay ex ñoo amoon si hip hop ay Brooklyn Niggas. Mm. Um, Harlem Niggas ñoom ñoo nekkoon booy pipeline bi. so hmm. after maa ngi jógee States maa ngi baat maa ngi mun a raam gars yi boole ma seen biir understand so eventually after ñun um, California night club mooy time bi ndóo yi bëri xamun fa waaye mooy fu yi mag Caesars nekkoon foofu muy hmm. amoon night club bu tuddoon California night club foofu hmm. mu nekk suma first performance ma perform ba toj fa nii after suma tour commencé di law and then from there after la nekk um, and si la affaire si starté di establish benn boy bu tudd benn time bu tuubagut um, tuba la waaye Gambie la yore woon papam français la papam english la yaayam français la mu muy tubaab so ñu mit ñu gis ne man ak moom suñu style yi dañuy similar si leen form benn crew bu DLC the lyrical cycle mm-hmm. so buñ formé crew bu si leen studio 2004 march record four songs mooy In the Ghetto Keep It Tight What's Real ak fàtte naa song anyway ñu mm. boot four songs alliance franco si wali yaa ngi si la génne suñu four single si and then depuis loolu si la nekk di grind di góorgóorlu ba ma àgg fii nii tey jana nga joomi de yaa ngi maa xool de ah yaa nga joomi de Pa Ousmane sax ma joomal ko joomi man munoo maa joomal man ma gis gi de yow dama mun a joomal yow ma level la am nga génne four songs nga génne nga kan nekk di dem in 2000 2003 4 2003 4 waaw nga commencé di def hardcore hardcore bi non man dama yaagaa nekk rapper waaw la bu ma duggee rap laa mos a def waaw waaw léegi yow hardcore rek nga di wuy hip hop laa di def waaw hip hop xam nga ñu bëri la jaawalee hip hop yow loo dee hip hop laa dee hip hop waaw waaye suma style bi daf lay hardcore at times waaw hardcore is just a style of hip hop Mhm understand nga so man rap laa mos def hip hop laa mos def like bu commencé 98 but tey uh, almost 20 20 almost 20 years ba hip hop laay why hardcore is a style of hip hop bokk na a style of hip hop understand nga loo miin comme da ngay am club hip hop boo amee ne ko mun a feeca understand nga loo so hardcore is just a style of hip hop si biir hip hop why hip hop laay def Why comme yow sax gis nañ ne sa wuyu yu bari dang si dee use ay F ak xam nga yaa ma tuumal non tuumaluma la poñ ko ban laa dama dee dama dee déglu dama dee xam nga comme def naa about am na almost two hundred songs ah uh-huh. waaye foog naa four songs rek laa mos a use fox word ah, four songs rek laa mos a use fox word bi te loolu est discours. nañ ko rafetal rek ñel F1. non non non non non non bon nañ ko rafetal rek parce que am na ay kilifa yu laa seetaan moo tax ma ne la léegi use F word bi. am kilifa yi am ah, comme ñi nga xamante ne xale yaa ngee jàngee si yéen ah yéen na ngeen nekk comme rôle modèle ngeen. nit mhm. ñi jàngee si yéen fooguloo ne. it's not advisable fu ngeen use those kind of word. ok xam nga dëgg la even though mën na nekk saaga. why um, Lego Legi is a form of expression to stamp on something. Come Lego Legi, Come example, um, a song bu nekk album B. man, they don't care about us, they don't give a fuck how we living. They don't care about the ghetto children or the people in prison. Understand what I mean? So so hell no for use the F word, it wasn't like the monosaganit. Understand what I mean? They don't care how the hell we're living. Example, Lulu Mohindas fake on it like come the generalize, come it stands on that same category understand nga Me, ma the F word boo déglu ma dama dama ñëw so Lego léegi they can daf use the word or yenn words yoo xamante it's been um, identified as a saga fekk mu use in a term boo xamante he's just trying to express himself because daf see mood boobu la nekkoon song boobu moo ko binda mu they don't care man. they don't care about us they don't give a fuck how we living. they don't care about the ghetto children or the people in prison so so xoolee no ma use term F, F, F word in that context you understand that he's just expressing his um, his dissatisfaction and this is one of the forms of him expressing himself understand what I mean? miin uti naa comme son am say hey you madam nangam you f you f nangam f you f you no it wasn't used in that term where it was meant to be verbally aggressive you understand so loolu in nekk situation bi Right back to you From now, only four songs out of 200 songs Like, remember boo xamante ne use naa si f word B word bi nag use ko x word big. ndax man man music i nga man lyrical rapper then you don't understand but ma parce que ni artiste la comme artiste yi dañ am ay catégorie mm. you understand what I'm saying like man, i nekk dafa am loolu lay tax a dugg si musique ak mm-hmm. ku lay tax a dugg mm. um, man am a rapper boo xamante ne I consider myself as a conscious social rapper Because mm-hmm. que xëy na ñu bëri lay foog ni comme léegi laa commencé about system, bi sax waaye soo dégloo songs like frustration where I'm talking about the daily lives of a Gambian wala su ma yenn songs yoo xamante ne I'm talking about the lack of electricity in the Gambia Thing I xam ne man suma subject is just basically social. Hmm. mooy suma subject matter. understand nga loolu So, if my subject matter is social then I believe the social cause warut a ànd ak saga or yena negativity attached to it unless you adjust in a certain situation bo xam ne dafa jar bu nga saga which is very rare waaye man suma music man mag yi ne sax nañ koy ku bokk si gétt gi exemple won na la exemple wax naa fa yaay dem lu ma ko wax te saaguma ko exemple dama laa wan rek pour nga xam ban façon artiste ne man dama am brand dama am lu ma lay identifié soo waxee Killeh Isack déggee keneen da nga lay xalaat Fisher Cat exemple soo déggee beneen artiste da nga lay xalaat ne kii musique yi problème la woon soo ku nekk dafa am lu la lay tax a te man loolu mooy suma euh, main reason ma nekk artiste leer na booy maa ngi laa jomal booy xoolal na ma xoolee <laughs> ah ci la su ma gars yi naka beneen baax respect man. <laughs> du ma ko faale. di ko may suma fan si xole yi waa Gambie sara <laughs> gars yi waaw. Uh-huh. comme ni ma ni ma ko waxee rek nga nekk si hardcore bi. si hip hop bi. si hip hop bi waaw comme ni nga ko waxee. rambalax bi dox lool. waaw dox la macha allah. am yaa ngi doon manage am benn artiste lii Arms mu jékki-jékki rek kenn daawutoon ko woy si hip hop bi comme ni nga ko waxee mun lu mu doon def lool ñu toog rek gis ko si rambalax bi yow still naaw nga des si hip hop bi am te rambalax bi am na xaalis nekka di dox am na xaalis asine lan comme naka la amee xaalis comme gars moom lañ gën a bëgg a la amee xaalis laa bëgg xam waaw because comme comme ko waxee comme xam nga nit yi duñ dem waxale moo gën a xumba waaw moo gën a xumba lu ma moo gën a moo gën a dox gën a moo gën a dox daal si suñ time buñ nekk nii nañ nañ wax loolu noonu doo waxuma ne hip hop bi nekku di dox waaw waaye yow sax xam nga li maa wax because fii gis nañ fi artistes yu bari so Wehe Rambala is more commercial I can agree waaye soo waxee ne mooy dox dafa depend in which diagonal nga koo xoolee. moo dox right now fii si affaire ñee wala. lii dañoo wax waaw lu nekkaat waaw comme ni ma la ko waxee ñu ngi doon wax raam mbalax bi. waaw mais yow ngeen raam mbalax bi dafa dox. raam mbalax bi dafa dox. waaw mel na la man si suma gis-gis. Uh-huh. Uh, ay at ci garaaw la doon dox. mooy ay 2013 14 15. 14 sax waaye right now afrobeat take over raam mbalax. understand nga momi te so waxe ne gars rambalax mo nek di gëna dox dox ah, man lolu dama si disagree parce que nit ku nekk mm-hmm. fu nga nek ak ci looy yëngu ci yow lolu moy lu gën mm-hmm. moo may def hip hop mm-hmm. bu gars di baye hip hop suma remi artiste ñom baye babu ñom ji ñom ñu hip hop la gars commencé won parce que ah. yi dafa ràmbalax yooyu noonu ah, fii la ma te fii la ma fekk batay dama déglu ma ma laaj déglu ma. ima ko contrôle. wa ata contrôle seere seere seere. maay rap loolu comme ni nga ko waxee sa moromi artiste yëpp ñoom dem. dem si rap mbalax beeg yooyu. yow style naaw nga des si. hip hop hip hop bi waaw lan la la foofu ba léegi. parce que man hip hop laa gëm te dama xam ne hip hop moo ma ëppale advantage téeméeri junni yoon ngir man lu ma am benefits as a hip hop artist si su ma gis-gis laa waree and I might be wrong waaye gisuma benefits bu si beneen artist buy def rap mbalax am to be very frank because of hip hop nekk na universal. music boo xamante ne foo dem tey is accepted hip hop soo xoolee si wall bi am na artistes yoo xamante ne ñu ngi represent seen on major competitions whether it's rap battle whether it's DJing whether it's break dancing and they are all part of hip hop mm-hmm. understand nga lu ma mean uh, man dem naa fi ay festival in the name of hip hop di represent Gambia mm-hmm. ban rambala artiste nga fi gis ku dem represent Gambia in the name of hip hop or uh, rambala dañoo waxtaan dañoo waxtaan no dañoo waxtaan just na leer su amee xaw ma su amee xaw ma damaa wax lu ma xam dama bëgg ñu wax based on facts. Mm-hmm. fii I'm nga fi benn ambalax artiste boo xam ne faa tëgg a show ma tëgg a show comme mu ëppale ma nit amut. understand nga lu ne wax We are going to have a show two weeks later. organise show The man compté at least 500 people You have to fix. The two weeks later, organise show The within Gambia put organise show for one month My OMG show understand nga lu ma even though i amoon na si complications why still it was good for a show bu ñu in two weeks. understand nga balaa maa dem Dakar 2013 déglu ma dama dama bëgg a wan statistics yi statistics yi non xam nga 2013 suma first album launch bi xam nga fa laa ko defee. Uh-huh. loo mooy venue bu gën a am ak Gambia apart from Independence Stadium. time boobu rambala artiste seen bopp sax seen bi ak seen launch nii Alliance ne damaa génn Alliance Franco xeeb naa ko ma dem jàkkaarloo ma am at least 3000 people foofu first step mu ngi YouTube demal Killa Ace nga type e album launch kon su fekkee ne dañoo wax ne dañoo def mbalax parce que loolu moo ëppalal popularity te man lu gars yi di feesal laay bi lu gars di am lay am when it comes to popularity kenn su gënuma popular bala nga koo xam ni dem marché Serekunda léegi nii di nga gis maire yi ñëw di nuyu nga def live video understand nga moom bi so lu ngay def nga góom nga déggu si ba pare nga mun lu ngay def it's an te man lu may def dama ko mun te dama si am conférence représenté naa si Gambia bu jaago laa jógee Mauritanie dinañ ñëw si loolu dama may dama laa woon da benefits af a euh, léegi man bu yàggul a jógee Mourtani toj naa fa man ak Dip ñoo nekkoon headline xamante ne they are one of the hip hop biggest hip hop groups of all in America. Hmm. ñu nekkoon man maa perform Dip tëj. videos yi ayaa bi fa foofu ma jógee fa demaat si festa bi testa bi nga xamante thirteen countries ñoo fa represent across the world man ma represent Gambia understand nga touch fa you. te hip hop lay def de ma ñëwaat Gambia tamit maa ngi am endorsement deal ak Africa dama laa wan understand nga loolu non dama déglu am getting paid for that I have bookings December bi book nañ ma xaw ma yaay understand lu ma miin lu tax ñu book parce que xam ne I can bring something on the table Hamne ne amna naa ñu mm-hmm. nga xamante ne ñu ne man lu may def mun naa ko te dama si dëggu te dama si sax loolu moo nag man dama ne soo gisee nga war a defi beneen musique dafa fekk ne yow si lu nga nekk da nga yaakaar ne du mun a dox dégg yaa maa dégg bu baax mm-hmm. soo léegi loolu OMS euh, ne man maa nekkoon man a jam mm-hmm. ñun dama amoon benn plateforme boo xamante ne I was am one of the main founders mo The Cypher The Cypher bi lulu lay def mooy every month da lay am free shows tech ay battles ndaw yi ku win ñu jox la 50000 dollars yi so Sypha bi plateforme la boo xamante ne ndaw yi dañ fa dee jaar pour ñu développer leen xam nga may Mike Jira tey foofu la jaar ngay feesal alliance EasyT ak ñeneen ak ñeneen so OMS nekkutoon ne maa ko doon manage waaye si Sypha bi la bokkoon. and he was one of the products of the Sypha. Mm-hmm. te moo winoon suñ first rap battle competition bi mu nekkoon champion bi ñu xamee loolu. so léegi moom bu firee like ne dafa war a dem defi mbala dëgg la na ma waaye moom mënuma si dara like his choice la his opinion la. so waaye loolu wàññiwul loolu mën a dara asan artiste mm-hmm. parce que bu affaire demee mu gis ne mbalax bi taxutoon si saytam anastanga mm-hmm. loolu min dafa ñëwaat si hip hop tey ñu ngi nii bu yàggu am show ak moom anastanga jàmm ne ñooy mm-hmm. so loolu affecté ma parce que maa ngee dox de du lépp lay wax de waaye man maa ngee dem de barke maa ngee dem de man personally maa ngee dem as an artiste so loolu wàññiwul ma dara so ñu bëri dañ bàyyoon rap mbalax hip hop dugg si mbalax rap mbalax because time boobu amoon na bës xumboon na so yaakaaroon nañ ne ñoom suñu bëggee gaaw siiw wala suñu gaawee bëgg a nit ñi xam leen dañoo def ràmbalax bu gaaw taf taf mhm. te man suma objectif wasut pour man ma gaaw rek ñëw toj fi siiw alum mhm. kalaaj gi waaw mhm. am ah, ba léegi rek ñu ngi doon wax affaire ràmbalax ak yooyu ñu gis ne so lu ma wax mooy man nekkuma woon si ñoo xamante dama filool na dama war a bàyyi lu may def dam defi leneen pour hit waaw te maa ngi nii hit naa dafa ma war a ràmbalax te ba tey maa ngi hit toog nga fi benn jamono boo fayee mooy mooy ñoo si jamono dina ah, ñoo si jamono boobu am ñu gis na yow comme am nga fi ay bif ay yenn artiste karakan su si mel ni ñoom ji bi fante ngeen fi ah mhm. naka la loolu demee nga gis ne da nga bëgg affaire bi fan bi fan teeg yooyu waaw amoon naa waaw ak ak Fatou ñeneen lu waral loolu waaw suma bif bi ak ji Um, differences in Larek, in opinion as usual man more difference in opinion uh, lu waraloon suma beef beef ak like the root cause ñu bëri leen lay wax ràmbal la hip hop la fekk loolu mooy indin bi de waaye ne gars yi seetaan neen South DVD um, foog naa ñoom benki ñoo DVD boobu yee ñoo ko so amoon na benn segment gars yi dañu doon they like ci la is They like each artist bu interview they leen about another artist what do you think about that particular artist Like, neen about Freaky Joe I think he he to me he was whack uh, For loolu laa waree uh, Like neen Nancy Nancy ma ne xaw about G. ma G ji nag dëgg la staalare waaye taay daal something like that laa wax suma biif beeg ji that statement la starté foofu la commencé di sour. fast forward I'm na yeneen situations you have. si diggante bi Euh, mu génne benn song ko together xam nga man tamit ma reply song boobu noonu. Mm-hmm. pour gàttal wax bi parce que amul time. Mm-hmm. pour ma reply song bi wéy bu euh, songam boobu noonu si la beef bi ñun suñ biif bi ñaari biif la amoon ak Baye Babou first beef bi was fii nii man ak ñoom moom ak tam. Mm-hmm. first beef bi was about hip hop la mbalax bu affaire si commencé ees nii. gars yi dañu génnee song dis ñu ñu tamit ñu dis leen affaire si xala anastanga loo min dem ba àll xala bàyyi leen ñu ritee gars yi alliance bi xam nga mu xaloon a get out of hand understand nga lu ma mi biif bi loolu la woon waaye after loolu kuuloon na ñu amaat beneen biif time bu ma nekkee woon Dakar bu yàggut last year mm-hmm. because of dafa postoon um, uh-huh. you know so suma second beef bi ak baay Babou was last year ñëpp fekkee nañ ko understand nga lu gars yi lu ñu woon mooy um, moom dañ ko interview woon en Senegalese media time boobu noonu rumus mu ngon doon daw mooy time bu mu hitoon noonu ma lo Diouf tok baa bi so xam nga mi ngi hit so mu ñëw fekk amono rumus bu doon xew Sénégal bu amoon ñu ne Baye babu dañ ko Gambia bla bla so gars invite ko si benn uh, video au television ñu laaj ko avant ah, loolu xam nga so mu leen noonu loolu dégg gars yi dañoo yaa ba pare mu ne leen ah, Yaya Jammeh dafa bu a ndaw yi ndaw yi statement bu noonu like momosi aussi xaaloon na so ma bind Facebook ne lii leen war bàyyi fi naafixa yi leen war bàyyi naka ngay waxee ne Yaya Jammeh dafa bugg ndaw yi ndaw yi bugg a Yaya Jammeh nga jógee ko foo xamante booy yi every day ñu ngi dem baak wee sa ñaata booy ñu ngi dee si yoon bi parce que ñoo bokk koñ xam neen lu fa nekk di daw te yow nga ne Yaya dafa bugg use dégg ma suma opinion laa wax dama laa wax nu fa demee mhm. ma bind suma suma story it mu naxari ko mu inbox ma saaga man day maa ko amee suma fóon bi ba tey saaga man day nii yaaya jame su la téye dafa afla sa nangam mi nangam nangam no anastan waxuma ko ko toy na parce que xam nga man du may xam ma la saaga sax on que ñun neen xamante ne anastan nga loolu ma bàyyi ko si biir xam nga you know um, ma génnee ko song tura bombal six minutes song ma dis ko track after waaye yow minute after minute six minutes mooy song boobu bombal you know eh, noonu la fa demee woon man parce que man duma tok facebook di tontu wante man musique la am suma melu lu ma dama la dis soko udah nga disat man ñu dem ba understand nga yo no i express myself music is a form of expression lolu ngeen wara understand music is a form of expression so ma bay ba nu la fa mujjé way bala na ko tan ñi am yéena ini wax ray na ñu am tay la ñu ngi tassé won yéena ngi jubo ñu nah, ko bala na da nga ragal rek nga né bu nga nga bay babu nokko nako fi west bay babu nokko west live noqon naa ko Westfield fii si moo ñëwoon bi sayfa bi laaj ko moom ak tama àndoon ba kanam yi laaj ko laaj ko da nga ragal rek ne non bi déggoo nga maa ma fii la bu ma ju delluwaat si jamono yi nga mën a ragal dafa la a yi paate naa ko loolu passé na <laughs> léegi yéen a ngi yéen a ngi guddaal ah bàyyi su ma naka la bàyyi boobu man ma nekk féegu rampam laaj ko kii kan moo nekk sa féegu ramp kan bokk si du la inspire hmm. waxoon na ko mu ne kii lay bokk na ñoo school mhm. so ku nekk xam nga fii sa morom fii ñu ne neen xamante ne wax bari nga ko mun sa morom dafari mun sax waaye ñu ne neen xamante ne ah, waaw parce que moom tamit lu moo def moom mu mun si ràmbal ma mënuma ràmbal mun na waaye maa ko daara understand su ku nekk am nga foo mu ne sa morom so is ay bala maa ñëw si ku bokk si gétt gi naan si meew mi rek ma laaj la Miss musique Gambia bi naka nga ko gisee is it going wala nekkul di dem si man musique Gambia doxul tey nga gàttal rek doxul tey doxul ëllëg mhm. waaw doxul léegi ma gàttal waaw musique Gambie doxul doxul gàttal naa waaw lu tax doxul si suma gis-gis mooy ok man dem naa Dakar am naa ko mhm. waaw non non ba baana ma ma plug suma power bank bi la gis nga light off na suma phone bi fay na lii la ñoo daj Gambie courant dem na. waaw mbokk yi yéen a ko gisandoor gis ngeen ku ma invite gis ngeen moom dafa rabaxe moom naka la mel yéen ko gis si digg interview mu jóg di dem jëli ay power ba ak ay kenn xamut. non pour gars yi gis waaye ba léegi rek. yéen a ngi seetaan Gambian Talents promotion seen xarit Gaye Njoro di leen ko indil saa yu nekk di leen wax ne nag Gambia suñu comme ni ma ko dee waxee. yéen a jaama yàgga yéen a yéen ngeen am jaama yéen ñuy seetaan yéen ñu fi tax a ñu nit ñoo leen fi tax a di leen wax na rek Gambia suñu réew la comme ni ma ko dee waxee saay yi nekk rek nañ liggéey nañ àndoon nañ nekk benn am di rafetlu comments yi ngeen a comments di leen wax ne ñu leen a jaajëfal di rafetlu seetaan bu ngeen ñoo seetaan ak toppa bu ngeen ñoo toppa saay nekk rek am ñu leen a indi lu leen neex rek wax naa leen ne Tambambalu show bi dinañ fi indi ku nekk dinañ fi indi businessman dinañ fi indi celebrity dinañ fi indi politicien dinañ fi indi dinañ fi indi ñëpp dinañ leen fi indi képp kuy def am talent rek nekk yong Gambian di def lu naay si Gambia bi rek dinañ la indi fii nii si Tambambalu show bi wax naa leen ne yéen ñuy setaan sax comme li ma la ko ne waxee saa yu nekk rek mun ngeen ñoo wax sax ku ñoo indi am ba pare rek dinañ wax ne saay yu nekk rek ngeen ñoo dégloo xel te bañ ñoo dégloo xol na rafet rek Gambia suñ Gambia la ñun ñoo ko moom saay yu nekk rek nañ di rafetal am ba léegi rek maa ngi am kila Ace mi ngi waxtaanee affaire yi live am affaire musique xam ngeen ko moom nu mel rek bu leen ko faale am soo paree bloc sa power bank boobu laay gis nga dëkk bi fa naxari de amul like connexion bi dëgërul gis nga li leen leen daj Gambie de waaw waaw anyway bëgguma dugg si yooyu waaye garaaw waaw acca bismillah man yaa ngi ñu ngi doon wax ne musique bi doxut waaw mais ah, musique bi doxut bi ah da nga ma laaj waaw lu tax doxut sa mic bi rek waaw um, oh uh-huh. um, soo gisee musique bi doxut xanaa xale wala liir su juddoo tey wala two years balaa two years dina fekk màgg na ba di mun a dox soxlam waaw wala déet. Mm-hmm. yes or no. waxal sa wax waaw wala déet. soo daa gis ne man ma ñëw jógee Gambie bu ma ñëwee lu ma fi fekkoon lu ma fi bàyyoon laa fi fekkaat de. Mm-hmm. fekk ma fi benn changes de moo tax ma nekk musique yi Gambie doxul musique yi Gambie doxul tey doxul ëllëg sponsorships amul companies yi nekkoon di endorsement. people yi xam nga bu dégga tamit they have their own way of thinking when it comes to supporting local talent. waaw Killers comme ni nga ko doon waxee rek am nga ne musique bi. waaw amuñ sponsor. waaw waaw loolu la am nga ah, ba pare musique bi amu structure amul like structure of a music industry in comparison to the rest of the world loolu su ma si bëggee dugal dinañ si dinañ fi yàgg understand nga ba pare xam nga artistes yi dafa bëri ay naafee seen biir. like loolu nekk na beneen problème like within suñu neen xam nga di nga gis ñaari artiste yoo xam ne sax bu déggee kii su toogee si moromi kii déglu ma anastan noot ah su toogee si gannaaw kii daf koo jow de ah waaye suñ jàkkaarloo de eh booy star nga nakam yaay cool anastan nga te soo gisee ma gën a am sañ-sañ pour mun a artiste yu bëri naa feexal leen bu ma demee Dakar suma moromi artiste dañ ma doon against anastan nga lu woon te loolu jikko naa feexal la parce que ñeneen ñu bëri yu ma doon against suma gars yi gisee eh mag ci yaa baax nii hypocrisie te hypocrisy yóbbuwul dara kanam understand nga loolu um, bokk na si waaye overall structure ab benn industry set Gambia amagul te suñu bëggee musique bi dem kanam dañoo am an overall structure of a music industry scene bi mun a dox te loolu own breakdown yi boppam la so um, time amul waaw ñu toog rek am waaw jàppa nga toog fi rek kenn déggatul la nga fay. nga ne nga ne xaaral nga euh, créer fi. non non mu 2013 ba 15 ma xam kenn kenn la ma kenn xamutoon. like kenn la xititoon. waaw diggante 2010 ba 11 waaye 2012 13 14. 15 loolu laa laa wax nii loolu laa laa wax nii nga toog rek kenn déggatul la. comme yaa ngi yaa ngi yaa ngi xala yaa ngi woon yaa ngi woy waaye. ma wala su ma nekkoon 2013 14. bu ma dog déglu ma 2013 14 yaa ngi hit ngir ku bokk si gétta gi. non gétta gi June 2015 la génn. waaw yooyu noonu. loolu la laa wax. waaw after yaa ngi liyoon gaa yi dégguñ la noonu. kañ after gétta gi ou before gétta gi. before gétta gi. nga toog rek moo tax yoroon lana toog lana tax sax nga génnee gétta gi. da nga bëggoon a créer boos foofu noonu. wala nit yi xamaa la si jaaree la ñu la xamutoon xamaane la seeg yooyu noonu. non waaye man dama la expliqué 2013 14. I was very active as an artist. So my most successful shows you am laware was in 2014, 15. Parce que last event ma am encore remember nice come day. te they were all successful. Yan song lagi in 2014. Gëné na about three songs, naa na waaye wire freestyle bi ñu fatali ko xamné. Hmm. Ah ba pare gëné na in fuck ñu dem bala ko bokk si gëté gi. Hmm. il ñu dem affaire yi baax wee song bi parce que dëkk bi dafa métti waay ku amul avion uti yoon dugg si géej bi waaye il faut ñu dem track will drop now. understand that that was that was doing good so mënuma understand lu tax ngeen ma hituma woon tamit internationally maybe I wasn't as popular as bu Gitagi. génnee domestic no no no no uh, uh. domestically as an artist I was established already in Gambia. you you are already established established on nga already. Eh? I was established eh, nit yi dégg nañ la waaye dafa am time bu nga create boost. moo tax comme ngi wax ne gi xam nga international spotlight la ma jox de waaw waaye ko bokk si géete gi biir Gambia fii nii man dama wax mais dama show 3000 people balaa maa def ko bokk gi first step cypher bi 5000 people fix Pa Ousmane Diouf xam na kanala balaa bokk si géete gi kanala kanala kanala advice pour nga génnee ku bokk gi la da nga da nga siw wala da nga bëggoon a créer dara pour nga pour ñu xam nga nga créer fi dara seek asylum pour ñu delloowaat la back to new york uh-huh. loolu yëpp si la bokka wala naka la fa demee waaw man ku bokk si géete gi wala maa ñëw si ku bokk si géete gi waaw da nga war a xam ace si lan la nekkoon balaa ku bokk si géete gi su fekkoon ne time bu dama laan wéy love song love song love song music club music club music club rek ma def ku bokk si géete gi it's a difference waaye uh-huh. even before ku bokk si géete gi suma song si wa uh-huh. on the same subject matter the only difference between kuboko bokk si ak song bu mel frustration mooy si kuboko bokk si gétt gi dama wax yaay si frustration waxuma fa tur yaay jaame dama the only difference there. waaye amul su police brutality parce que ko in in ku bokk si ko depuis 2012 si suma song boobu noonu still upset in the hey Mr Officer lu tax nga koy brutalize you're signed to serve and protect make sure you do it right loolu 2012 la mhm. it's on SoundCloud dama check dama laa won the same subject matter You nekk si ku bokk si gétt gi dama ko doon wax corruption wax naa bu yàgga understand déglu ma maa ñëw ak yeneen ak yeneen si suma yeneen song si before ku bokk si gétt gi waaye the only difference mooy si ki bokk si gétt gi dama ko wax turi Yaya Jammeh Yaya Jammeh jël jóori xaalis di ko may ay foreign artist loolu rek mooy the only difference between ku bokk si gétt gi ak suma yeneen song da nga jéewoon si loolu de déglu ma maa ñëw so that's the only difference. Mm-hmm. so su fekkoon ne dama daan def yeneen façon musique ma ñëw def loolu mun naa understand waaye that's all I was talking about mooy système bi ni moo doxee biir Gambia. Mm-hmm. si suma musique ñu xam-xam ne SoundCloud has the proof. so léegi. mais diw maa ñëw non non damaa nga yaa ma laaj lu tax. so tax bi mooy because of that's what I'm about loolu adduna. parce que lu ma wax si ku bokk si gerte gi yëpp dafa nekk loo xamante man dunda police brutality sooy dóor ne ma fi Gambia time yaay ñame ba soxna amoon na last incident bi. dañ ma yóbbu fii Kanifing si benn kër monkey dance loo ñu ñun 20 people la woon Bala is my witness Bala Dégga uh, Moses Fatman DJ Fatman is my witness Rahim Ibrahim Cham nekk ñu ngi on Ibrahim Cham nekk GRTS is my witness understand nga lu ma ak yeneen ak yeneen ak xamante police def na ma ko so man lu ma wax si ku bokk si gétt gi dafa nekk loo xamante man dama ko dugg na mhm. ñu ñëw si corruption bi I have been a victim of corruption mhm. gis naa titi ñëw ñu may ko ay 1 million dalasi maa ngi toog fii nii maa ngi strand aw ma dara maa ngi xuus si dëkk bi amul ndox amul lay soo dama ko dunda soo lu ma wax si ko bokk si gétt gi dafa nekk loo xamante ne dama ko dunda ba pare su ma nit ñi dunda ko mënuñ koy wax man ma nekk rapper ma nekk artiste ma wax ko on their behalf daw dem Sénégal soo su fekkoon ne yaa ngi doon wax ne ku la si ku la ku la gisul mu seet si la maayal waaw soo su doon affaire xaalis moo tax ma ko def de mm-hmm. xaalis moo tax ma ko doon def mm-hmm.

asylum la mhm. ah mhm. man suma papa suma yayi ñu ma bokkal day ak bay ñu ngi Amérique ñu ngi Amérique waaye yow ma déglu ma déglu ma man yalla xamna ne amna desperate pour ma tukki be ma wara risque suma life fi jabar ak suma life fi dom pour tukki hmm ben amna sell out to that extent mhm. tukki rek lutax mané dama risque suma life fi jabar ak suma life Mm-hmm. pour tukki loolu méegut sens mm-hmm. su ma bëggoon a ut asylum mënoon naa fay def lu seer Gambia fii utee fii asylum te du ma dem Dakar te fekk du nekk leneen lu political dama laa woon rek des mm-hmm. other ways of having asylum fekk du political asylum understand la so su dee tamit pour xaalis la loolu ñëpp xam nañ ne Yaya Jammeh moo fi ëppoon ñëpp xaalis te artiste ko dina la jox mbuus te di moo nga koo wéyal di ko ñuuxu ngay gën a am moo taraanga ay moto ay kër gis nañ ko fi ñoom Samba Diawlo ak gars yi nii ñoom Baye Babou dem nañ fii ful raali ak Yaya Jammeh instant nga loolu dama la won su don halis la munu na weyal yaay jame parce que lolu amul risque ala l'instant nga loolu kenn mhm. du ma ut bi suma njaboot dina safe dina am suma halis lolu kan- tax nak ñune lolu tax nak ñune ne non da nga am pour dima deglu man tamit mala wa parce que duma la muna bayeli bi waxna la fi ma fee contrôle is my soul aja yesa yes madam <laughs> am comme ni mala ko waxe rek comme ñuko ñep ñu bari nekku ne man mako wax sax waye suñ guest bu gatt ñu bari lolu lañ wax ñu wax ne sek asylum motax nga génne lolu ak bugg si siiw bugg sa bopa bugg sa ah, bopa sa boppa mena time la ñep ki la ees ñep dina fi waxanto xam nga nga tok rek nek fi ben celebrity bu mag bu nga xamantene do celebrity won nga won sax wa nga tok rek nek fi ben celebrity bu mag bu nga xamantene melni ñu waw xam nga ñu bari wax lolu noonu nga nek fi xam nga celebrity bu mag mag xam nga dëkk bi yëpp ki la foo génn a yéeguloo sol mi ku bokk si gétt gi naan si meew mi mooy ndóo bi nii xam nga yooyu rek nga si na moon parce que xam nga bëgg a génn a dëkk bi parce que xam nga ñu ngi la paagee Europe ah, comme ni nga ko waxee New York si la Gambia fii nii fi nga xamante ne laaj beeg yooyu xam nga nga ne xara nga créé fi benn tension rek xam nga. waaw loolu mooy loolu mooy lu daw yaram mi nag parce que ñuy wax loolu yëpp ay Gambien leen. Uh-huh. ko doon wax yëpp ay te ñoom la doon faytal. parce que lu ma def yëpp euh, si soogul boobu noonu yëpp si situation boobu yëpp at the end of the day maa si gën a so dafa sad pour the same people that you are fighting for ñuy toog di la against si loo xamante ne fen ak duul la te loolu dafa dafa métti understand moo tax loolu moom ma inspire woon pour ma génnee song boobu waxi jàmbur si laa wax ne ñu ne den ma sponsor pour ma def ku bokk si gerte gi ma ne leen I've been rapping about my struggle since I was in baby feet ñu ne um, uh, I've been sponsored by these Sa Bopp so I let them know. understand nga so loolu yëpp dama ko adresse pour wan la ne du gars yi wax muy sponsorship yi loolu yëpp amut bo yàlla rek a xam man nu ma dëkkee woon non non non GoFund mi yeeg yooyu non non nanga la fa demee <laughs> non man GoFund man ñaari occasion laa ubbi ma demee Amérique tukulóor mm-hmm. si mais tukulóor si su ma seere la mm-hmm. ak ñoom si nga dama dem ñu ne dañ maa ubbi GoFund pour ñu ma koo dimbalee ma ne leen non man loolu taxul ma koo def xam nga dimbalé ma ay ni duga fi gene fele melni ni motax mako def understand parce que man tay ma nekkon gambé sa awus was good ngi won marché fonda di jaay di make money di save understand nga lu ma min mhm. léegi laa ñàkk loolu waaye bu ma demee ñu né ma gofon ne leen non man maa ngi cool understand nga loolu taxul ma jup xam nga waye ku ma bëgg dimbalé dimbale individually I still appreciate it du ma ko delloo parce que ah, teraanga waaye nag ñu bari ñu la do nuyu nuyu murit ma ngi ñëw ki la yees maa ngi ñëw <laughs> understand nga waaw yoyu sa dama ya expliqué bëgg sa li xam nga non xam nga dama lay bàyyi dama lay bax pour clarify parce que nit ki su waxee lu mu xamut doo ko mën a blame parce que xamut. Mhm. moo tax muy spéculate wala muy indi rumors. Mhm. parce que xamul dañoo assume so it's nice when you hear it from the horse's mouth. Mhm. man amul benn NGO bu ma mos a bu ma nekkee Dakar man su ma yaay ay sa Diop. nga maa ngi ñëw si Dakar bu déedéet waay waay dinañ egsi si foofu bul bul ma jiitu. dama bëgg li mu leer fi ma lii dina leer. xam nga lu ma wax wax daal bàyyi leen di duwul di yaakaar doomi jàmbur. na amuleen na rafet kàddu gi na nice comme ni ma ko waxee woon. parce que man doomi jàmbur la te nice waaw waaye tamit nañ ko rafetal rek parce que am na ay kilifa yi laa seetaan. non waaye sax bëgguñ fen ak duul. waaw waaye comme comme nga rafetal kàddu gi rek xam nga doomi adama njaay waaye saay na rek ñuy rafetal te nag dul yóbbu waaye ñuy rafetal kàddu gi rek comme ni ma ko waxee ngay rafetal waaw xam nga nga def fi loolu noonu bokka ko yow yaa baaxoon si gétt gi naan si meew bi xam nga mu nekk woy bu jóg bëgg nag waaye nit yi ragal lañ koo teg sa time boobu affaire bi euh, ay benn benn ñoo ko amee woon seen mobile yi rédio yi si sa doo ko si dégga rek nga pam nga dem Sénégal ab naka nga dundee ak salri lu mu neexee ak suñ Gambia bii lu mu ndawee nii la neexee yaa ngi dégg nga sacrifice loolu yëpp nga dem toog senegal naka nga dundee génn nekka dem exil naka nga dundee Sénégal bi no dem bi métti woon na trop parce que dem foo xamante ne amuloo fa mbokk amuloo fa dara fu ngaa fanaan sax si benn pukus la ak te bi génne yow ak sa jabar sa doom ñoo xamante ne yaa ngi leen bàyyi woon fii appartement bu seer bu am everything fully furnished ñu war a dem dëkk jàmbur boo xamante ne dañoo fanaan si suuf. Mm-hmm. xam nga you know dafa métti woon fa like two months si loolu laa ko mm-hmm. waaye ma am na ne man is the results of xam nga is the consequences of my action. Uh-huh. parce que ku bokk si gëdd gi kenn waxul ma ma def ko maa ko defal sama boppa uh-huh. so anything lu si ñëw I should be always ready to face the consequences so métti woon na yàlla dimbale na ma ak gars yu baax ku mel ni Siga te dama wax parce que. Uh-huh. nga ne ku mel ni Siga Diagne ku mel ni Siga Diagne Ndiaye ak non Siga Diagne ah saratu Siga kooku moo nekkoon koo xamante ne moom moo intervene sax di ma liggéeyanteel comme si gaayam yu baax yi te loolu si pet la ko defee kooku mooy one of the only people si struggle bi tey parce que dañ laa mën a joxe ay rumeurs ne Fatou Camara moom lay fayal rent loolu yëpp da ko daan mën a dégg si struggle bi alastanga loolu dafa am na alastanga mm-hmm. mm-hmm. na leer waaye koo xamante moo gënoon a sax mooy Siga Diagne kooku mu xam nga te du man Siga daf laan dimbale ay families ñoo xamante ne ay yaay ak seen njaboot. Mm-hmm. di leen jox ren di dimbal dimbal. Uh-huh, nga ne Siga Diagne. moom bokk na si ñoo xamante ne mën naa écrire suma loxo si kaw. moom Gambien la Gambien la. mooy um, xaw na magam la xaw ma rakam la waaye bu mag capitaine Ndiaga Diagne ñoo bokk a ndey ak bàyyi si yàlla di yàlla ko yàlla yërëm ak suma yaay suma yaay mooy de fixe koo xamante ne du daan nangu ma sonn ma xiif ma sa Aïssa Diop ay Aïssa Diop yàlla na ko yàlla gërëm. yow song bi bu nga koy def tàggu nga kenn tàggu nga si sa yaay tàggu ma kenn tàgguma kenn après si la ko gars yi dégg so pour affaire yi support bi ak yooyu moo war la naka la fa daan demee naka la naan dundee Sénégal nga am ku mel ni Abdou Dramane ak very few people waaye ñu doon paj paj yëpp su ma waaye nga de su ma Dakar man maa xam ne ma doon dundee Dakar so suñu waxee ne affaire yi xaalis la sax fen ak du la nag am na ñu la daan nuyu nuyu murit nag am na saa su yàlla ba saa su yàlla ji eh, tey ba saa su yàlla ji tey am nga am na ba saa su yàlla ji tey ah, ah. am na ñoo xamante ne ñoom Khadija Diallo ak gars yi gars yi dama lay show love di ma support because of they happy of what I do comme yéen Gambian Talents ni daf lay happy sax ne la am dugalal li seen waaw comme ni nga ko waxee rek am sa bokk si gétt gi naan si meew mi am nga struggle si mm-hmm. waaye nag jural na la lu bari bari yan achievement nga si jëlee waaw bokk na si mooy yaay jaame jóge na fi parce que ku bokk si gétt gi dafa may ndaw yu bëri safara ak mm-hmm. du ko bokk si gétt gi sax waaye time ma nekkoon Dakar activités yi mm-hmm. waaw so fata na sa ku bokk ci waaw so jula na at least man bu ko def it was for pour nit ñi eew xam sen responsibility té lolu amna boy ji bëri suma nga like duma lay bëgg a waxee waaye bul dégg su la jaaré ba am inspiration pour wara sax am fit ku def yeneen ah understand té lolu leen ci time yaay ya, ya, jame ya. so hmm. alhamdulillah you know and that's what it is man loolu moo tax ñu def ko pour sa waa ji jógee fii nit ñi eewu xam na ne lii mooy suñu dëkk suñu dëkk bi ñoo ko moom kenn moomoo ko ku bokk si dëkk bi naan si ah, ah, ah, war nga am sa baat si réew mi loolu rek la te loolu la ñoo apply si each and every administration mm-hmm. mooy ku bokk si gétt gi da nga war a naan si meew mi muy Barrow moo fi nekk président muy mm-hmm. suma papa Ibou Cham moo fi nekk président waaye saa su nekk um, ku bokk si gétt gi um, like um, after political impasse bi mm-hmm. ñu gis nga doon def job bu nice nga xamante ne waaw di jox gars yi lekk rek xam nga yooyu foo daan jëlee foon yi. no um, time boobu nu, time yi impasse bi bu nekk woon Karang. waaw uh, man I was like the project coordinator. ma amee woon like coordination me and everything. Um, aji dafe moo nekkoon suñu xeet bi ñun lu ñu ko yóbbu woon pour dimbale Gambien si la si biir dimbale Gambien si Gambien su nekkoon bitim réew ñoo doon yónnee seen xaalis. pour ñu dimbale parce que amoon fa ay more than 2000 first day bu ñu demoon fifty register bala ñu foo jógee 2000 people ñu leen a jox añ ndékki reer ak di ko anasta ngal I so halis boobu nunu. si guy neka ci si diaspora bi lo jige wala gay nek bitim rew ak yena businessman yi ci bi dëkk bi ñu bëri sax xam nga xam ñu seen tour ñoo xamantene effort boobu nunu. way nek ne man ma génne won halis bi man I was to assist hmm. leer wa motax moo na ma ne la ne def nga fa job bu nice sa mbokki mbokki gambian yi mu nekkal lu nice nice mm-hmm. am kila is still naaw nga nekka si xëccoo beeg yooyu. xam nga ban xëccoo <laughs> problème problème rek. Ah, ñu gis la si. xam nga lu lii. xam nga ndax lu nga nekkee. exemple non exemple xam nga ndax parce que bu yàggul nii rek gis nañ nga génne fi tamit song bu ees naan non non something like that. mooy sa euh, lete song bi nga génnee di jooytu dëkk bi naka nga gisee government bi es bi yow man song boobu noonu si suma album bi la bokkal waaw album bi maa ngi ko release depuis april mm-hmm. waaye dama génnee song bi release ko so song bi yàgg na génne depuis april song bi mu ngi si album bi mm-hmm. ñu am album bi xam neen song yi noonu noonu maa ko génnee release ko waaw as a single parce que mu ngi relevant ak what's happening today waaw loolu moo tax génne ko waaye nekkul ne song bi es la ko recordé courant bu off beeg yooyu. bu ma wax affaire courant depuis temps yaay jame maa ngi wax courant soo déggee suma yeneen song si waaye courant ñàkk na loo xamante ne. waaye fii ñu bari comme like bu ñu ko dégloo dañ wax ne da nga use loolu pour. di a mel bi non I moo tax ma release ko waaye waxoon naa ko depuis démb du tey laa ko wax balaa Barrow di nekk président laa wax loolu ba si laa ko wéy. waaye léegi dama la bëgg a laaj ñu government bu toog nii. am na naka nga ko gisee. in what sense. yaa ngeen def. luñ war a def. am nga si ban yow am nga ci regret si everything si beeg yëpp naka nga gisee ñu government bi. Um, small honest opinion, man, I'm not happy, I'm not satisfied with the government's way of functioning. Are I'm you happy. disappointed with them? Oh. No, I'm coming. I'm not happy with the way it is being administrated. Why mm-hmm. um, parce que ñu ñëpp ñoo fi fight baro pour mu toog si dëkk bi. Mm-hmm. waaye government bi léegi soo ku government ñu bëgg def ne yow sax nii xam nga te dëkk bi bàyyi kenn moomu ko. So the way the country is being governed, I'm not happy with. Mm -hmm. Like the more fog, like man, it's more personal law, on behalf of anybody. Um, I feel like they yakar on more from this government. The mm uh, development, wala skyscrapers, wala you know. Why come ni to doxalee réew mi si boppam. Mm-hmm. benn ñun boy ñun duñ lay xam sax si liggéey la gaay nekk. Mm-hmm. dañ lay dégg rek EU money nii naa nangam duñ lay xam sax baaxa bu naka la example. right now communication breakdown mi ngi am daaxaneen may fàttali ñëpp ñu ngi speculate. dafa nii dafa naa ba xamul they're not communicating with us which is a major setback because if your own president or your own government cannot communicate with you the same person couldn't put into power then there's a problem example pour one la communication breakdown benn am um, three dama um, feel like the system change moo gën Yahya Jammeh jógee na fi mm-hmm. first step second step mooy lu tax ñu génne ko fi ñu defend ko mooy dictatorship moo fi amoon mm. démocratie leen am dañ koy defend te bu yàggut gis nañ affaire permit bi ak yooyu mhm. that did not show that Gambia is going towards a democratic yoon. Mhm. understand nga loolu I was very disappointed in that decision. by mhm. the government. because daf loolu daf doon wane so fekkoon ne jox nañu ba ñu def everything is jàmm that would have been a great look for the Gambia's democracy. ak EU funding bu am based on guidelines of sustainable democracy. Why bu gars yi reject ñu permit bi pour def lu def that wasn't a democratic form of doing things benn su ma gis-gis laa wax ku am nga say opinion yaa si am understand nga ba pare like lu ma gën like si government right now hmm. loo xamante like man personal suma personal um, naxar la man personally hmm. Moi, um, dama feel like man gisaguma fi like loo xamante dama feel like ne ñoom say make that effort understand nga lu ma mean to change the way we the Gambian people are living everything is on the increase food baa ngee gën dunda baa ngee gën everything is on the increase te gisuñ like any participation of what they promised us Because parce que boro bu mu toogee nañ fàttaliku ñu ñëpp i am yu mu digoon ne dina ko def espegul mu def ko de waaye at least ñu gis efforts ak moom mu ko def te loolu bokk na si mooy affaire yi Dawi, yi ndaw yi nekk na loo xamante ne dafa war government Boy, you get desi si baag bi ñu ngee di pot ñu bëri ñu bëri ñu ngee ñëw amul lu def understand nga lu ma what is it there? What is the solution for the youth? What efforts are they doing to help create opportunities for the youth? si man I don't know maybe ñu ngi am seen project waxuñ man I don't see it. so you are disappointed. ba pare the last disappointment bu am mooy the same system of Yaya But ba tey moo fi nekk. para you don't die dof. waaw loolu dinaa si ñëw maa ngi government lépp si parce que government bi is three branches. waaw maa ngi ñëw foofu waaw maa ngi ñëw foofu. bul ma bul roche maa ngi ñëw foofu. waaye bala ma ñëw fofu bëgg naa ñu waxtane ci sa affaire yi ya jabar tuuti rek waaye daa ngi jaxase conversation bi ñu ci si affaire politique nga bëgg duggal ci si personal bële la bëgg closer rek xam ne xam nga moy moy talk of the town lu nekk nii mooy daj de bëgg mo bay man dama am business yu ma tamal rek ñun sax dem am business dama la wala time nga dem time nga dem ya fi nga di bari wa wa xam nga am ñu tok rek yow nga dem fi Sénégal ñëw wa sa jang xame am doom nga prawtee ko binda ko ci facebook bi awraay ne suma jaxa bi am na doom su ñun suñ aada ak suñ custom xam nga comme nit su biiralee sax wala ñu biiral la sax danga dee xala saay wala danga dee nëbbu waaye yow nga jël ko binda ko outright comme the same thing bi nga def ni nga defoon bi nga taseeg sa jabar xam nga nga binda ko si facebook bi wax wax yu rafet nag ah. si sa jabar xam nga taga ko xam nga waaw lana la dugal si loolu lana lan nga. what do you gain from there dama dugal lan. binda ko si Facebook beeg yooyu lu nga xamante ne da nga ko ne sa affaire yi jànq bi. non doom doom la. waaw. understand nga te si ku ma amal doom nekkul ku bon regardless af ne dama ko taal. Mm. at the time. Mm. nekkul ku bon understand nga loolu su ma jigéen la she was there for me. at mm-hmm. that time. Mm. understand nga loolu mi te yàlla def ñu am doom. so loolu lu ma si war a ruusee. pendant ce amosi like, man personally parce que doom doom la regardless of how nous ko amé ak déglu ma may ñu even though si ada, more nice nga taka am jabar am ko like amna amna, so waruma see mën a amee gàcce parce que rafet la ma amal comme ah, ni ko bindee outright waaw parce que I feel proud man su may doom Wow, parce que am nga noonu la fa war a demee lu bon la pour am doom am doom du lu bon ba yow nga war koo ndóoba su dafa ñu ne la doomi kile is a ngeen nii and it's a new seed and you have to introduce them to the world wan mm-hmm. leen ne am naa loo xamante ne mooy leer bu wàcc si yàlla ñëw si si pays doomi aadama and loolu fooguma ne nit war nga see mën a rusee voilà and loolu moo taxee like man tamit ma put it out there like I don't see any shame in having a baby you know especially with a woman that you are xam nga engaged with mm-hmm. man loolu man aw ma si problème like to be very honest bee tax ma war a like you know um ruus pour post ko Facebook pour la ak waaye anyway nga am ñaari dom, wa koku takana ko sama jabar mari naa ko ray na bi nga ko mari no bu mu amee doom sax iya. si bési takka bi la ko takk bési fekk tas nga sa jabar bi la already nekku ne dama amone jabar am dom ci kaw bir sey be dama tas ak suma jabar bi dale ma amat ma nek ak kenen kuma nek nekkoon laa amaloon doom bu mu leer naka nga nek di right now ni hmm. sa dom bu nga do am ak sa force jabar bi mu ci yow Uh, no. Wow, <laughs> go away. Oh, shit. Ah. waa mbokk yi di jégalu ba léegi rek di leen wax ne xam nga rek Gambia bi fii nii affaire yi ndar boog beeg yooyu noonu daf ñoo xala jox problème tuuti rek ba léegi rek yéen a ngi Samba Balde Show live and direct di leen ko indil gambia Talents promotion seen xarit ngay njooro ñaambeeg maam xaasi maag sey nam doomi ndeyam ak baayam ya sëti maamam di leen ko indil saa yi nekk rek ma amma jàkkaarloo kila e bonde Ali Baba Allah bay solja bari affaire jàkkaarloo moom rek comme nuñ ko doon waxee rek nga am ñaari doom am kenn ki nekk si naka nga intente intene pour rees ñaari xale yi nga xam ne they are from different mother non waaye loolu mooy suma responsabilité loolu man xam naa nu ma ko doxalee papa la am responsible father suma a gis loolu moom muy wone loolu bàyyi ma ma liggéeyante ko rek da nga ko lijaan waaw bàyyi ma liggéeyante ko rek as a papa right now nii yaa ki nga amal doom nii takka nga ko that's very good am um, ba léegi rek dem fen ma ñëw dugga si rek fi nga naga segment bi teel ma ko nii ñëpp di ko box bi important na si ñun lool gis nga ko Tamba Mbalu Show defen sek eh, eh, sara ngir yàlla sara ngir yàlla eh, sara ngir yàlla sara sara ngir yàlla waaw comme ni nga xam nga rek parce que Olof Njaay mu ne si lépp loo yëngul rek comme ni nga ko waxee Gambia fii affaire sponsor yooyu noonu xam nga nekku di dem te pour nga sustain façon soo yu mel ni yaa ngi am use credit xam nga yaa ngi jël sa xaalis di fekk nit ki yaa ko guddal waaw déedéet defal leen xaalis defal leen xaalis waaw déedéet yow ñoo wax yow man waaw box bi soo gisee ñu ko indi dañ ko dee indi Afrique waaye yéen a ma war a fay pour interview yi daw box bi dañ ko dee indi Afrique képp ku ñu interview dañ ko indi defante waaye su ma si dama may hundred ko fii defante 啊。 uy baax next time okay. am na defante segment la so defante segment bi dañ ko dee indi soo gisee ñu ko dee indi comme ni ma ko waxee saay nekk rek si soo bi la bokka képp kuy invite rek dañ la ko dee indi nga def si dara pour mu taxawal suñ soo bi ak ndax soo bi di gën dem xeebuñ si dara nag ba pare tamit da nga yelewaan rek raw waxal da nga yelewaan ba pare comme part, part of this money dañ ko dee jël di ko yóbbu si di people yi ak yeneen ak yeneen ñu ko ñu ko defaral nit di people yi so lépp loo am rek lépp loo si mën soo ko mënee def léegi léegi ni caméra bi nga def ko si waaw am suuf su ko defee ah, ah, eh, eh, eh, am nga tuulasi baset boy am nga bu mel ni Killa Ace lii moo tax Gambie du dem pour amee amoon dara dara si de artiste bu mel ni Killa Ace comme ni ma leen ko waxee yéen ko gis am ngeen pound boy dugal naa fa seven dollars yi gis ngeen dugal am si box bi maa ngi amoon coins de waa garaawul non xaaral ma meleen hundred damaa ma meleen dollars si baax na yaay seet. waaw wala déedéet. yaay seet rek neexaluma leen ma mel ne xondet. yaay seet rek wala ma yaay seet rek. ba ba bàyyi ma mel ne xondet la la dugal naa fa xondet Pa bu may yeb Pa Ousmane bu su ngeen ma amee dara. waaye tey mel naa leen xondet dalasi war a ruus dalasi si box bi. waaw wax na leen seven dalasi actually. ah ok seven bi nga passé ko xam naa mooy pass pour fi ba dem fooy dem. hundred bi xam naa nga koo jëndee pour megabytes bi nga jëlal am ba pare léegi um, this end of month naa leen may ña ñaata mégabytes nga lay jënd pour every jour. am dafa dépend rek. waaw ñaata nga lay spend monthly naa la may 500 dollars si credit. waaw baax na. maa ko pledge on di kenn laa lay jël suma monthly credit bi. afagaat waaye dinaa la may 500 dollars yi dégg nga credit. waaw baax na. dégg nga. jërëjëf apprécié nañ ko. aaj laa dugal nag bëriwul nag waaye. munu neen waaye su taaxaan demee ba jeex. ñu ne ñoo war a dimbalante you know I wish I could looloo tax rek ñu ne indi bi comme ni ma la ko waxee te comme xaalis bi ni ñun mosli sax duñ ko dee lii ñun dañ ko dee yóbbu nii di pibul yi dañ leen dee yóbbu leneen ak leneen waaw dina ñëw ci loolu dañ leen dee jox ay yére ay ah, bagage amuñ ci lii rek xam nga ba pare tamit um, su ay bagage la comme ni ma ko waxee Gambie bi ñun ñëw mun a dimbalante mm-hmm. xam nga lii yombut fekk sa artiste fu mu nekk wala fekk sa fekk benn ko am talent nga génnee ko nit yi xam ko xam nga loolu jar na nga def si lu nekk soo su ko defee façon yi dañ ci war dee jàppa yàlla yàlla yombal yëpp rek yàlla baax na sala jërëjëf hundred dollars bi appreciate nañ ko one hundred seven seven dollars appreciate nañ ko waaw balaa loolu rek mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek yéen a ngi seetaan Tambambalu show rek comme niñ ko dee defee saa yi nekk am ñu ngi si nag jeexantel bi jeexanteel bi nag dinañ ci waxtaanee li nga xamante ne mooy Occupy Westfield buy toj dikka bi fi mu nii ñu gis la si Acopac Westfield bi naka nga ci duggee. waaw um, very good point ku ma xam xam na ne man team Gom sa boppa moom lay represent mooy su movement bi maay président bi. te uh-huh. yàgg na def lu bëri. understand nga waaye Acopac Westfield suma boy bi Aliou Ba uh, moom mooy day founder mun naa moom moom yëfam la moo ko moom. waaw waaye suma doomi ndey la suma brother la yàgg nañoo ànd. Ah. te bokk na si movement bi team gëm sa boppa hmm. ma gis ne moom mu si loo xamante ne cause boo xamante ne cause bu vital la si suñu si society hmm. waaye even though bu mu xelaatee idea bi dama ko wax me ko post naa ko Facebook mais leen ay six seen point waaye foog naa suñu three months ba nawet pare bla bla bla ñu soog a protest su fekkee ne seen deadline bi mituñ ko hmm. loolu moo nekkoon suma lii waaye regardless it's a good cause so even though I had differences in approach and ideology and strategy -hmm. As far as organization was concerned, I still thought it was a good course. cause. Mm-hmm. Um, si jump on board ma gars yi boole ma si seen um, committee bi. Mm-hmm. committee bi nga xamante ne moom uh, moom moo doon dox yéen yu bëri si time Occupy Westfield bi. Mm-hmm. so dama one, right? as a member uh, bu la naa assist according to my capacity. understand nga so loolu noonu laa si duggee. understand because so by soo bàyyee xel Occupy Westfield um, as it went on it was becoming more and more better because more and more people they were jumping on board behind the scenes man banking and then people knew xamante ne we were helping Aliou koo xamante the xëy na they don't def mistakes your body or Hamga, understand that si leen si jump on board. Mm-hmm. yeah no noonu laa si Why i am team comes up bopp all day. Why after lii bi Occupy West Wing bi ñoom gis nine for nu for fa demee. after police buñ leen. Euh, parents yi buñ leen stobee xam nga yaa ngi fa nekkoon di create violence xam nga di di say xam nga. ay create violence. waaw xam nga di. si naka di lii nii because ñu xam nga comme. non ma create ma violence. xam nga. create ma invite nañ sa gaa yi sax Kër Fatou. waaw gars yi invite nañ leen ñu ne ñoom. ñoom defuloo leen on. on their behalf. non parce que moom maa ngi amee. ñoom ma su fekkee dama leen koo wan. dafa am loo xamante ne su loolu da nga def loolu wax nañ la nga stop. déglu ma ma ñëw man dafa am ma own personal concept la ak ma own personal belief ak nu may doxalee time boobu noonu maa ngi bokk si faces of Occupy Westfield te man maa ngi amoon suma stress bu ma demee gis fa paaraay yi mel nii ñu ngi si war zone ak seen fetal yu mag yi ak seen tear gas mel nii ñun ay rebels lañ loolu su ma own personal stance la mën a xar te waxoon naa ko mel ne leen any decision that I take is disassociated from occupy Westfield parce que lii suma own personal belief la ak gëm-gëm la understand nga mooy man dama demee Westfield first day bi bu ma demee Westfield I was going to show the world ne système buñ fi fight woon pour mu génn fi time Yaya Jammeh mu fi ba tey mooy lan Yaya Jammeh di use force against youth yoo nga xamante ne dañ war a génn si pour seen civic responsibility and right understand nga loolu moo mën naxari woon parce que time Yaya Jammeh nga daan gis para yi fees benn place seen rocket launcher yi ak seen pick-up yi ak seen ski mask ak seen fetal yu ponkal te lu ma naxari woon mooy ñun ak officials ak government bi dañu waxtaanoon si suñ first meeting bi bala ñu koy cancel meeting bi so bu ñu waxtaanee meeting bi mu a jeex muy man May Fatty at the time ministry of energy um, the the security adviser to the ak ñeneen ñoo bokkoon si meeting bi yi invite ñu pour ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy protest bi. Mm-hmm. meeting bi mënuñ koo jeexal dat day ñu push meeting bi ba Wednesday. so bu push poussé meeting bi ñun tamit ñu ne cancel leen meeting bi ah, ah, protest bi cancel leen protest bi until further do, until after the meeting with the officials. Mm-hmm. and based on the results of the meeting dinañ xam su next step. so mooy ñun call nañ everybody off lan moo tax ñu war a dimanche gis at six in the morning dem ba one o'clock para yang for accent heavy security. so man léegi lu ma fa taxoon a dem. Uh-huh. mooy pour ma vidéo comme li ngay def di vidéo di wan àdduna bi luy xew Gambia. man loolaa demoon def vidéo wan gars yi ne ba tey système bi moo fi nekk parents yi ñu ngi fees step fii nii ak seen fetal ak seen ay bagage loolu moom moo taxoon a dem soo léegi bu maa dem di vidéo soo bàyyi xel si vidéo bi sax man ku ma àndaloon kooku moom ma ngi naan def mooy eltigu waaye moom si boppam sax maa ko wane ñu dem ñu ko kuul so bu maa dem rek comme seen négativité yu gars yi daan def depuis tamit Yaya Jammeh xamuñu ñoo waxee ak civilian parce que parent bi man la fa nekkal su ma defee lu nekkul yoon sax dafa war a xam opportunité moo use understand Because we pay them to serve us foofu laa doon xalaat soo léegi bu ma demee approach maa ngi téye suma caméra bi suma phone bini. nii di dem di dem nu ma approché gars yi bala maa wax I think sax I believe suma fenut um, officer bi mu ne hey put your shit down put your hey put it down now hey aggressive language man tamit ma ne ko non non non man du ma mën a phone bi am naa right pour film any thing that is public here understand nga te loolu fu leer laa ko teg wax bi bëri nii. fan nga ko parce que journaliste nga. wala euh, lan nga mais mais mais ko fu leer. leeralal ñu ko. you don't have to be a journalist to be a concerned citizen. understand nga am a citizen I am concerned about what is happening in the country te am naa right pour wan ko ñu nga xamante ne nekkul pour ñu gis the real side of the story waaw wala déedéet ah so man bu ma après so xam nga gars yi di xëccoo ñu naan non dama ko mel na leen suma phone bi doo la ko nangu loolu is out of it loolu bu leen ko xelaat sax suma leen suma phone maa ko Mala video, no, I'm not right for video officer. Because he is a public servant, not a private citizen. In a public space. So I'm not right pour one the wall what is going on within that public space. So para yi ñoom dégloo ma ñëw dama laa wax fan la violence bi so called violence bi fan la amee uh-huh. parce que lii is nice ma leeral ko mooy officer bi moo vidéo mom si boppam ak gaayam yi ñu ak aggressive on me hey nangu ba gaay nguruti woon la ma sama ko vidéo pour nangu nangu mel ne lu ko jox understand nga loolu mi dama leen naa vidéo ba fu neex understand nga léegi locally seen boos bi Kamanda Balde was there muy koo xamante ne lu ñëleew defoon mooy ñu ma approach wrong yi lu gars yi defoon ah ñoom ñoo waroon a def lu Kamanda Balde def Kamanda Balde lu mu def daf ma oo laaj ma lu xew ma expliqué ko moom tamit mu wax ak ñu nicely te bu ñoo wax ak moom ñu ngi koy vidéo bu ñu koy vidéo am beneen police bu ñëw mu ne gars yi nga laa vidéo capitaine mu ne leen non it's okay muy cool so capitaine Balde moo cool tensions ñu waxtaan ak moom. understand nga everything was cool with them, senor. Why violence? I'm for one. it was resistance moo fa amoon dañu waxoon ne dañoo nangu suma phone bi mais leen du ma ko du ma leen ko jox understand nga moom loolu moo fa amoon mm-hmm. léegi si second day bi mooy si second time bi mooy si time bi protest bi mm-hmm. ah, si bopam xam nga dañu waroon a protest gars yi aaye ñu suñ clearance bi te clearance bi moo waroon a nekk loo xamante ne mooy lu sécurité bu yu gars yi di jox ak pour area bi to make sure ne it is stable parce que even Dakar bu ñoo organise protest Senegalese officials yi loolu la ñu gars yi defalal understand nga loolu mais dañu jox 3 hours from 3 to 6 ñu pare gars yi jox ñu security and did so many things for us ku mun a ko sax suñ protest bi senegal Dakar gars yi dañ fa jàppoon benn NIA mu ngi woon si news bi so si am nga am na si expérience soo gars yi bu ñu ayee clearance bi mooy ne they they cannot guarantee security of the people te ñun tamit daf loon selfish pour ñu oo nit ñi ñu génn te du leen mën a garanti seen sécurité ak seen safety si leen wax ne bu kenn génn ñun ñu décide ne as a team ñun dinañ génn read suñu press statement bi suñ peree ñu loos léegi ñu dem mooy dimanche bi ñu read suñu press statement bi Aliou read ko and everything léegi si balaa bu peree rek maa ngi interview rek mu si suma live Facebook bi rek rek para bi ñëw ak seen full pack up balaa loolu ñaari pick up romba rek taat bi taxaw ak seen full guns masque. helmet waaye yéen ni ngeen expecté woon na nit yi dañoo génn yéen service rek a génn yéen yéen fiw nit yooyu yéen a génn. déglu ma wax déglu ma wax ñun bu ñu gaayee um, révoqué suñ clearance bi. clearance bi was to secure was security for the premises loolu mooy aar nit ñi su fekkee ne gars yi dañ nangu suñ clearance bi joxuñu ko naka la ñu ooyee nit ñi pour ñu génn ñu risk seen life loolu dafa sa selfish soo si leen wax nit ñi ne bu leen génn is out there mu ngi Facebook def nañ suñ release bi. bind nañ ko. mu wax ni génn wala nit ñoo décidé ne. ñii duñ leen toppa non sweat barki alxuraanu kër yi amoon na ñoo ñu ko oote woon ko gars yi doon xaar waaye leen wax ne non amuñ clearance te duñ mën a garantie sécurité of anybody so yéen toog leen kër we will come out on your behalf so seven people or 25 people boo fa gis ñoo represent ñu nga xamante ñun ñoo leen wax ne buñ ñu xaw ma yaa ngi understand pour mu leer. loolu mhm. leer na loolu a. no xam nga commotion nga war a use du violence violence mooy jamante paaka rey xam nga. waaw commotion bi nga fa use xam nga lu tax yow always rek su commotion ñëwee ñu tuddala si yeeg maa ngi ñëw maa yi ñu ne ko we are all the leader mu ne ok léegi yaay you guys have to disperse because national security bla bla bla so ñu ne ko cool xam nga ñu fekk ñu pare ne lu ñoo def sax léegi si biir mu ne may naa leen 30 minutes within five seconds 30 minutes boobu mu change ko mu ne in fact sax may naa leen five minutes five minutes boobu tamit mu ne léegi sax génne leen fi jóge leen fi léegi right now. nga ne doo fa jóge. yee. loolu moo mën a xarit man déglu ma mais after si de naa ñëw waaw maa ngi ñëw man tamit man maa fa man maa not lu ma fees. waaw waay ak lu ma doon daj ak lu ma feel time bu ma. waaw comme nga créer fa tension. non non non non mais after si dem na time bu nga xamante ne sax ñoom Aliou ak Gengi ñu ngi wax ne yow bokkuloo ci ñoom right or wrong non loolu si kër Fatou bi la gars yi wax ne man lu ma def bokkutoon ak amul nothing to do with it yes o no waaye apart from loolu man loolu gis ma ko gars yi waaye anyway so officer bi from 30 minutes to 5 minutes to automatically instantly jóge leen fii léegi nii rek ma xelaat dictatorship ma ñaaka suma ne man dama lay gaaw a dof ma xelaat dictatorship ma xelaat ne west fii fii laa lay jëlee moo tey every day si bunte mini market bu mu foofu laa lay na lay suma doom bi complexe am bi pôle bu taxaw across wala taxi bu taxaw foofu noonu di eb client ëppalewul ma right west so lan moo tax this guy out of nowhere war a ñëw toog ne léegi ngeen fi war a right now in fact sax loolu moo ma naxari so man tamit dama wax ne suma right la Westfield suma place la foofu laa nekka te su ma neexee du ma fi jógee parce que am not right pour taxaw Westfield comme ñu fa nekkoon ñëpp di taxaw ñu fa i yi amee woon right Why just because of man maa ngi sol t-shirt I was the target or some people were the target and I said that was not right moo tax ma resist so man dama résiste waaw yow waruloo woon a résiste nag because of lan fa nekkoon yëpp comme ñi nga àndal yëpp nangu nañ pour dem waaw soo yow yow kenn nga decide pour def loolu waaw xam nga xam nga loolu dafa créer leneen lu moo créer xam nga lu moo créer xam nga loolu mu créer su fekkee ne wax na dëgg te yàlla tax xam nga loolu mu créer mm. ak lu mu wonee dafa wane ne the same para yu nga xamante ne ñoo doon téye suñu Gambien si di leen tocca di leen arrest di leen rey si boppam it was the same camp the same people the same ñoo xamante ne ñoo doon def loolu noonu time Yaya Jammeh ñu ñuy fight loolu noonu ñu war a ñëwaat Gambie fekkaat ko fi dañ koo fight ba dee su dee gars yi dañoo tocc ma bopp bi ak seen fetal bi sax I don't care Why soxluñ ko fi parce que ay citizens len ay domi rew len te ba am nañ right pour def lu ñoo def ci jàmm ak ci salam ak ci tranga ku nekk ñibi sa ñibi te kenn waru ñoo disturb waye xam nga ko for exemple waaw yow rôle modèle nga comme ma ko dewe sa saa nekk rek nekk artiste war a mhm. li nga xamantene war nga am comme like saa nekk rek affaire yi comme nga ne bu ma ko oyee violent commotion mu gis la si xam nga non waay waay soo gisoon ñu doon eh, aaye pamit boobu bañ koo joxe comme comme sa baasi mel ni yow sa yeneen façon yi ñu ñëw fa rek créer fa yeneen tension yi nga xamante parce que APRC jox na leen ngay pamit te APRC amoon na ñu jógee woon ba ay Casamance su fa rayon waroon na xew foofu la doon xewee parce que ñoom lu gars yi doon wax si seen rally bu wuu sax was yéen yi sax was insight non dama laa wan su fekkee ne ñoom seen public bi moo ëpp suñu public bi te jox na leen permit pour ñu def lu leen neex te violence amul fa lan moo tax ñu suñu war a am violence bi affaire youths la boobu affaire youths la te dafa lii dafa serious lu si serious affaire youths la nga ne protest nit yi génn xam nga yéen comme exemple yéen yéen na ngeen génn pour def peace pour démonstration noonu nga ko waxee waaye comme si façon peaceful demonstration yi ñeneen bu dee seerax ñeneen duga si nga dañu war a loolu moo tax it ñu utoon la pour loolu bu mu am loolu du sa responsibility as as protesters de it's the responsibility of the security to maintain peace and stability in the country no matter what is happening loolu moo taxoon ñu right out for that clearance pour gars yi jox ñu am indi ñu trafic police bokkoon na si pour contrôle trafic bi nga xam ne doon du stop kenn loolu moo nekkoon njëriñi clearance bi so ñun we not here to protect the people understand nga ñun dañ fi nekk pour all people Where it was the responsibility of the IGP and the security to protect anybody who comes out. waaye. so no pause comme lu ma la waxoon in Dakar. Ah. the same thing lañ def two days gars yi jox ñu suñu clearance mooy gars yi jox ñu si clearance bi lu si bokkoon mooy ne dinañ mën a am time nangam ba time nangam ba pare ñoom den gaat area boobu yëpp place de l'Obélisque boo di Colobane. dooree ko si toon table bi rond point bi foofu noonu Dakar laa la ware gaaj yi police yi officers yi ñu fa woon gaaj ñu benn potas si jàmm ak salaam arastal ñu benn NIA dem seen yoon and that's why you got a clearance loolu moo ma si jaaxal leen soo yéen ne na ngay jaawale permit ak clearance permit mooy soo waree yu sound system loolu yëpp xam nañ ko explain parce que yaa ngay wax permit waaye bu ñu gars yi revoke mooy clearance pour mu leer so loolu moo taxoon. man maa ngi wax pamit te nit yi tamit pamit lañ wax because pamit lañ ne mayuñ woon pamit. waaw after gis nañ clearance bi gis léegi ma ñëw ma ñëw ma ñëw let me let me break this down. Uh-huh. Um, you don't need a permit. ok pour assemble daal loolu yëpp loolu yëpp dafa gudda yaa ngee guddal. non waaye xam nga lu tax ñu permit. waaw permit bi wasn't pour sécurité permit was soo bëggee according to the um, national act bi xaw ma naka naka. So sooy a loudspeaker a sound system or anything see any place Then I will am permit for that. Mm. because of xëy na di get distract traffic di death def nangam understand I lu ma miin am permit Why clearance Do permit pour nga use sound system or anything clearance mooy ñoom dinañ la jox security clearance. dinañ make sure ne environment boobu foo ko defee ñoom dinañ fa nekk dinañ la jox traffic police pour traffic police bi maintain am um, lu fa nekk dinañ am seen snipers yi on the roof send agency on the ground di bàyyi xel ku yaaxa oo ku bugg a def toj clearance bi. clearance mm. boobu noonu la gars yi révoque bu ñu ko gars yi loolu laa bëgg a ñu understand. jërëjëf foofu leer na. thank you so man léegi suma problème bi ak police bi. Uh-huh. moo nekk ne man suma stance mooy man du ma nangu injustice du ma nangu kuma jaay advantage suma biir dëkk. Mm. I don't care what Occupy Westfield xalaat ak seen team bi man suma principal la du ma nangu comme kuma jaay dof suma biir own réew. te yow man ngay liggéeyal maa laa fay sa salary ngay ñëw dañu jaay route ñu fa nekk sax la mag ngay wax ak ñoom ñu la neexee as a officer ba pare dañuy traité on camera ndax dama war a toog seetaan loolu man waaye tamit full officer with uniform su la waxee mu ma fiim am na raad bi doo waruloo koo fiim non yow beneen topic bi ngay wax loolu personnage foofu boobu tëj naa bunta boobu noonu man expliqué waaw si la bokk rek non dama laa waxal yëpp si la bokk xam nga a euh, ah, ah. foofu comme ni nga ko waxee time ba ngay gën dem waxtu baa ngay gën a dem te ñun ñaar yëpp mhm. dañ fi bëgg a jógee ni ma ko waxee rek yéen bi ngeen defee occupy west bi yan achievement ngeen si ñun balaa ñoo def occupy Westfield si laa gis achievements. yan ni ñu ngi toog ni laaj. yow keneen yaay laajte di de su waaw parce que doo ma ah. <laughs> comme lu ma la wax man bopp loolu mooy suma ma gis man bu occupy Westfield starté si laa gis nawek seen bopp ñu start a heavy PR campaign di communiquer ak nit ñi. Mm-hmm. generation number six ñu ngi ko launch Brikama generation number nangam ni nangam nangam ñu ngi am project nangam and they were communicating parce que soo gisoon nit ñi sax amoon naxar sax bokk na si amuloo light xamuloo lu xew understand nga lu ma ñu tax uh, amuloo light waxun ak yow understand nga so communication bi then over boost seen communication bi like soo demee seen Facebook page bi ngi am more likes more followers ñu ngi engage more activities and they are talking to the people which is very good parce que ñi dañ wara a xam ne ñun dañ ko def nekk def ko pour oppose government bi oo am problème ak nawek dañ ko def pour ñoom ñu gaaw si lu ñoo def parce que fas ak lu mu daw daw dañ koy caw. te bu gisee ne ñu ngi caw nawek nawek fas bu mag bu ñàkkoo njëriñ ñu commencé di ko caw. Ah, waaw jërëjëf déglu ma waaw ñu ngi ñëw understand nga si leen gis gars yi commencé di def yu bëri. right now understand nga ñu ngi communiquer ak people yi ñu ngi install new projects am na yenn areas yoo xamante ne light bi tane na si yenn areas yi even though it's is successful. yéen seen lii bi moo ko tax mu am. bokk na si waxuma nañ moo ko tax de waaye bokk na si. am am léegi ñu génn si Occupy Westfield bi ñu ñëw si affaire Facebook beeg you you affair just diaspora bi I'm fi mu nekk nii wax bi bari na comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. affaire yi saaga wante yeeg. am um, attaagante false allegation in your teg see social media I'm nga. yow comme ni nga ko waxee right now nii xam nga yow sa boppa xam naa ne gis nga ko man du ma la ne gisuloo ko because ñu bari ak laa ngaa jëf nekk nii si affaire yi Occupy Wall Street bi yu fa def xam nga ñu ne a marre ma sponsor ñu ne lu nekk digg naa ko fa def xam nga ñëpp a koo waxantoo jéeg laa buli fële jéeg laa saaga. buli man kenn mënu maa buli yooyu noonu naka la ko. non man nag naka ko nekk di dundee. man ñu ma nekk si saaga yëpp ay ñu ma leen waaye lu ma wax mooy ku saaga ndey waaw ñu ngi doon wax. am ah, ñu bari xam nga di la si bulli xam nga facebook bi ku nekk mu ngi binda di la wax lu nga xamante ne du loolu sa famille naka lañ nekk di dundee loolu ak yow naka nga nekk di dundee yooyu noonu démb rek su ma yaay ma text di ma inbox ma seen voice note su ma fóomi su talon sama plein ko te am na ay wax yu ma si wax xam nga wala ma explain may sorry de man ba ñu ma ñu ma nekk di jéem a desantu sax ñu bëri sax fake profile leen instant waaye comme Gambia fii nga nekk Gambia nga saaga man day wala nga disrespect ma understand nga lu Lulu miin loolu maa yow Gambie dañ ko defante ma ñu outside diaspora understand nga lu Lulu miin loolu su la neexee yaa xam understand nga lu te duma. ma comme Gambie nii nga nekk fii Gambie di comme dis si suma own concept suma own personal belief mu nga wax sa opinion waaye kuma ma si saaga ma xam la personally mayo yow dañ ko dinañ ko liggante fii biir Gambie lu na leer understand nga parce que suma gum-gum ak si lu ma nekk warta tax war ma disrespect even if you have a different in opinion even if you're not down with the idea terewut wut ma lo ma suspect disrespect té lolu min nako xam nga tax miin naa parce que dafa melni Gambia affaire ci légui système bi dafa change time bu ma don def ko bokk ci gétti gi dem supporter yaaya jamay ñoo mo ran saaga di ma dis understand nga di ma xas di ma waa yow da ko def pour xaalis da nga out asylum da nga ni di ma ñeneen di ma ngi aimé yenn voice notes ak yenn screenshots understand nga légui ñu ñëw change ma am situation bo xamné dama ci bokk moy occupy Westfield their set objective so it wasn't even the government, it was NAWEC. Because que ñu bëri dañu war understand that NAWEC is not owned by the government, it's a parastatal, it's independent from the executive government. So why nobody jàngun hamun, you feel like ne ñu ngi against NAWEC so you're directly against the government That's te you're ñu against government You're tey right understand why that wasn't even the case so buñ against NAWEC um, ñu foog you're against government be, léegi mooy supporters of the government léegi tey xam nga time boobu it was supporters of Yaya Jammeh ñoo waroon dis. léegi supporters of the government tey. ñoo ma nekk it's the same cycle repeating over and over di ma dis di uh, wax ne comme yaanaa maa ñoo ma fay pour ma man team gëm su boppam mooy suma movement. Occupy Westfield aw ma si xaalis aw ma si funds aw ma si anything. understand nga lu ma miin ba gars yi di wax ne yaanaa maa ñoo ma nekk responsable nii na am naa partnership ak yaanaamaar parce que even protest buñ organisé woon Dakar sax yaanaamaar was partners waaye they are partners for team gëm sa bopp pour mu leer. Why put occupy Westfield musuma involve wu Y'en a Marre uh, when it comes to that understand so gars right now dañ ma jàppee as ne man dama nekk di against the government fekk man why government bi sax bu liggéey sax ma ñu that xoolal su ma wàññi ko de su ma against them Why the problem was issue was with knowing. so léegi some government supporters and political party surrogates yu fa nekk out there Uh, koo maintain Come time boobu look at Yaya Jammeh supporters yi mënuñ ko woon a maintain di ma saaga di ma dis loolu moo nekk again te lu ma waxoon gars yi tey Facebook mel na leen suñu bàyyi ñoo xeex démba démba ak tey ñu dinañ koo xeex suñu doom yi dinañ jeexal yu xeex bi bàyyi kenn moo mu dëkk bi just because of sa party wala sa tribe wala sa clan moo nekk like dominant in the government taxul ne lu gars yi defee da nga ko war a tàccul it's wrong loolu loolu mu lu Gambia suñu neexee kenn ku nekk mu génne sa bunti kër nga ne man aw ma laaj wala man lii tey neexul ma nga nga nga express ko parce que lu ma jàngal si government da am constructive criticism ak nga am destructive criticism te man gisuma si kenn ku saaga government bi gisuma si kenn ku wax government naka su dul noonu we just expressed our um, dissatisfaction peacefully kon su fekkee ne noonu la fa demee si yar ak euh, teraanga la moo tax comme keneen war maa xas si just because of your sa mbokk yaa in power or because of sa tribe baa nekk in power or because of your sa affiliation moo nekk in power kon dafa mel we only support based on affiliation Why suñ support Um, to change a new Gambia du dëgg du dëgg so man dama gisut waaye loolu war faa mën a àgg lu tax ñu war a xasante di saagante like yow dafa yomba benn tim la dooy lekk jaxatu man damay lekk jaxatu naa lekk suma jaxatu lu wàññi lu wàññi si yow sa ndab bi dara man loolu laa gisee Gambia waaye su fekkee ne nii la ñu bëgg a continuer. waaw loolu moo tax non dama dama expliqué loolu moo tax parce que léegi. waaw waaw waaw tey rek parce que temps dem. xam nga te juujaar jaar dañ fi bëgg a jógee moo tax ma ne la comme léegi lu nekk di go on yi spécialiste si social media bi di ak gars yi nekk si diaspora bi attaquante baa ngi bari xam nga mm. euh, discrimination yaa ngi bari nit ak saaga ni tey everyday ni defaral sa morom live vidéo xam nga teg ñun Gambia bi xamuñ woon loolu ana Gambien si nga xamante ne ñun dañ mu nekkoon ñun ñoom benn bolo legi tay mun nga nekkaat nit feneen ëllëg mu def fi dara nga attaque ko ci social media bi foofu nga am pour yóbbu ko fa xam nga ah, false allegation nekka di def ci kaw nit yi xam nga ja mu nekka li nga xamante ne fi mu nekka ne àdduna ci Gambia la ñoo waxantu bu da am te ñun rek nekkuñ social media ndax loolu lu war a am la war a lu war a walta am la yow naka nga gisee loolu noonu du dëgg du yoon understand nga loolu moo tax mel la xam nga fen ak dul yóbbu réew kanam danga ko dee bañ a dégg rek waaye yóbbu réew kanam understand nga lulu is nonsense is rubbish Boy, lu tanya warma war saga kenen sa. Aha, yang non wasi aferi. Wow. doon wax si affaire yi. waaw so lu si internet bi this is how we live um, lu mo doon si internet bi si uh, lulu noonu mooy comme du dëgg du yon, like just because of you? xam nga nit share ak yow different opinions understand nga moo tax ma wax ko si bombal bi ma we could all share our thoughts waaye juróom muy saaga te ñuy saaga di xasante si lu jarul xanaa ñun su fekkee ne oote nañ ko comme maa wax with the guy like not in my name people ñoo xamante ne were trying to la if we share different ideologies du mën a toog national television su fekkee ne oote nga ko yow nga ne yaa nekk si digga ma nekkuma si digga nañ toog ñu dialogue ko nañ toog Gambian Talents ñu waxtaanee ko adduna bi yëpp dégg ñu boobu side of the story ñu dialogue démocratie mooy bokkuñ gis-gis bokkuñ xelaat waaye terewul ñun ñëpp dinañ mën a ànd si société bi kële mu ngi nekk Joola kële mu ngi nekk Njaago kële Christian la kële yàppi mbaam lay lekk yow yàppi xar ngay lekk waaye we still live together te noonu la fa war a demee waaye nu ma gisee Gambie di dem is becoming tribalistic is becoming xenophobic te su dee nii la ñoo continuer billaahi wal kitaabi Gambie du dem barke Seexu Tijaan su bàyyi leen négativité bi bàyyi leen ignorance bi man dama nek ko xamanteni ku yaatu la man kuma bugal bugg any question ask me sakatuma ñu nek Gambia so amelu lu si sa nahari naxari dama kol ngeena la is naka ma ñëw fekk la fo nek ñu waxtaan si si jàmm ak si salaam wala ñu def loo ko bugg ñu defee dafa over oh, yomb ñoo fi nekk so um, te loolu laa waxoon gars not in my name bi buma tassé gaay ministry of interior parce que kene ci sen gaay dafa traité non Aliou Ba ak Thiassé ma fekk ak sen boss bi Sirif suma way la depuis time school ma ne ko waaye suma waji sa boy bi mu ngi traité suma boy bi because of this protest naa naa ko protest is it worth it man ak yow ñoo nekkoon suñu bokkoon benn koñ te politique dafa jeex waaye man ak yow ñoo fee des si réew kon ndax affaire politique war naa tax sa boy bi saaga suma boy bi wala di ko traité te su doon mën la kool wala traité ma ak jaase damaa ñëw fekk bu bunti këram lu xew-xew mu gor ma léegi suma xarit gor xaritam léegi tamit seen xarit gar gor suma xarit muy extend di extend di law ndax loolu jar na ko système bu mu toogaloon si boo si booram mu ne dialogue protest protest it's the same Why, at the end of the day let us all come to better reasoning te nu ko defee hmm. ak su ma bëri dama always bugg a reason su ma seetaanee fu mu lay ñëwee solution aw ma solution so jarul ko my peoples ñu may ooyee politicien léegi bu leen fàtte ne Yaya Jammeh sa potasam yi ñoo ma doon ooyee politicien démb de te a ma hero so bena nafi hangen parce que duma mëna nek hero dimba ba pare ñu nek leneen tay so just because of time bu mo don dis jaay jame daf len arranger won daf len favor won ngeen di ma tàccul di ma yuhul, because of mangay fight for your agenda understand nga lu ah nga di ma tàccul table bi ton may go against the same people that you guys support ngeen bëgg oyé lenen ak lenen su dé lool la kon naa fexe ngeen hmm, su ma ñu ne politiciens nga tay da non non wala doo digut ah aha acha a ñëwaat na sooy dafa minti mango bee fa woon lu ma wax mooy démb tey ñu may against tey ñu bëri ñu may against because of I'm not down with their agenda or down with their ideology te su fekkoon na démb ñu si ëpp ñoom ñëpp ñoo ma doon tàccul démba di ma wax naan hero nga jàmbaar nga understand nga lu ma mean eh. mm-hmm. because of I was fighting against the same cause as them Yaya Jammeh la gars yi bëggoon mu jógee fii soo Yaya Jammeh su fi jógee those same people may fight against the same system ñoom léegi ñu ëlbati ko waa di ma bëgg a ooyee yeneen tur naa feexal loolu ko wax mu leer nañ parce que dama mën a ooyee héros Demba ma ñëwaat tey the same cause bu doon xeexee Demba ba tax nga ooyee ma héros the same thing laa nekk tey nga ooyee ma leneen lu ñu loolu kon naa feexal ngeen ak doon si struggle bi si diaspora bi or whatever I don't care naa feexal su fekkee ne noonu la fa demee su doon maa nekkoon son héros Demba time bu ma doon fight Yaya Jammeh mu am njëriñ lool mu njëriñ leen yéen si seen boppa ma ñëwaat di fight against Nawek sax fight gu ma sax government bi rek commencé gu ma Barrow Mita project bi ak yeneen sax Nawek rek lañ kaasal de ngeen foog ne enemies leen ngeen di ñu owee leneen lu loolu ñu ne leen ñu fi nekk si dëkk bi te incha allah. ki la yaa doon wax rek. waaye so noonu la fa demee te man yi moom du ma ko bàyyi tey duma ko bàyyi ëllëg du ma ko bàyyi gannaaw ëllëg. te bu leen la music man suma musique bi ak suma activisme bi man musique moo jox inspiration pour ma def activisme pour gars yi di foog ko man nii man maa ngi am booking décembre ba décembre bi daj every week maa ngi am booking maa ngi am international bookings ak yeneen ak yeneen so bu leen wax affaire musique man lu maa génnee track sax gis ma benn Gambie artiste bu ko drop so terewul maa ngi engage maa ngi active si musique pour critics si dara seen na nga war a delluwaat si musique nga bàyyi politique te waxuloo ma woon loolu te mel la nekkuma politicien why i am using my art to polish system B. simple te loolu ku si am sa problème i am nga si right ba why i am not gonna change ace la woon démb Pa Ousmane Diouf soo gisee aha fañ bañ na seere bu yaay jaame daanoo ba in call Pa Ousmane Diouf moo call mu ne ma waaye yu ma continuer the fight or nangam nangam mel na leen man suma papa président sax te ma gis loo xamante ne du dëgg te ma war koo wax naa ko wax anyway that is what it is um, waaw kii la ñu may la rek because xam nga rek yeah I got business to handle waaw ba pare mm-hmm. lu du li nga bugg a wax yëpp yow ku la fi téyoon ëllëg sax may la full